Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne assan mbay sepp ci serigne cheikh bayi. mbay ci tiant gomé amal ci sante serigne cheikh sa mbay jambar ja wajuram wa kilifam ga xaritam ba soppem ba serigne assan mbay momé nak mom moy amal sa su tiant gi nga xamne mom lay sante serigne cheikh sa mbay motax nak mbok julit yi talibé yi xarit yi am jambi ñepp and ak mom cant gi nag tey niñ koy demee mooy xëy jàng alxuraan mi buñ ci jógee ñu àndandoo ñoom ñëpp dem ci fii nga xam ne moom mooy barabu Cheikh Sadio Mbaye ñaanal ko ziyaare ko euh, nemmiku ko waxtaan fa door àndandoo waat nag jóge foofee ca barab ya des ci kër gi bu ñu ñëwee nag dinañ indi bernde yi ba nit ñi lu ba pare ñu toog dallu ba saan ñu àndandoo nag dugg ci baas bi amal seremoni ofisial li nga xamne mom lañuy amal sa suné waxtan fa daggi wat mbooloo mi bu ko nak jang kat yu am solo yu am mana ñom itam ñom ñoy àggale guddi gi mbokk yi nak ñu fasiyene jëlal li nga xamne xewna na ci bis bi ñu fasiyene ka indil ki and ak yeen di seen mbokk Moustapha Niass Touba Belel point net di wax rek ñu taxerlu ak setan li nga xamne mom lañ leen ci kër Serigne Assane Mbaye

مارين لكل بكم سرمدار المسير يا ساجوف الفراغ ورا للورى كسب شيخ الخديم للورى للورى للورى بايو بسبار نينا Turn around! شوف الفرا للورا مثل الماء يريني سربت عادي لمن يخد الجميع بكن وتواصل بال الممدوع في النون أهل البرايا أهلال برايا برايا برايا برايا برايا سرج بامبانين وجاد بحمد وشكري ولكان بسمي مراد يكون يا عبد ربي خديم مان وخاتب بسكر والعب ساسما لي يكتي yëkëti moy ku xifon mar jog wara wuti yalla di cheikh sadjey yel na yonent bi bisu tey bii xam naa ne maam Cheikh Sa Dieye tëddul dafa toog bisu tey bi maam Cheikh Sa Dieye tëddul xolam sedd na bég na ci njabootam gi nga xam ne tey ñoo ko encouragé tey dend ak moom di ñaan yàlla na xéwalam gën a yokk yéen ñi fi nekk yal na yàlla guddal seen fan te defal leen wér Assane yal na yàlla sa ta yàgg sa taxawaay te defal la jàmm defal la wér ba nga ba nga màggee rek la lépp faju kera bala sa bàyyi nee waxtu wu nekk saa su nekk ngay wodd sa bay ko day laa ngi ni at mu nekk nga wodd ma yal na la yalla jox nak lo may wodde at mu nek ba say njabot gën di ko def yal na yàlla defal la jam te defal la wér yal nañu Cheikh Sadio do le taxaw tay ji ak ëllëg man Cheikh Sadio ya ngi dima deg ma na nga ñu taxaw nak ta taxaway bi gëna yag lool njabot gi fi nek ñepp yok serigne talibey ak ñepp am jàmm am wér am wërsëg wu ñu leen liggéeyale ñëpp bëgg nañ la liggéeyal waaye jamono bee doy waar mbay sang yàlla na nga indi lépp yàlla na nga indi lépp milliards yi nga xam ne moom nga am bi ko joxe taalibe yaa ngi sëriñ saa ngi ne ñëpp am ci milliards yi ba mën la liggéeyal sa béréb bi nii béréb sëñ Tuubaa mel sa béréb bi mel ko mën nga ko sañ nga ko lépp nag yeewoon nag saa jël tëgg lépp yow sëñ Masamba Jaara Mbaye nga ca Ndar yaa ngi nii njabootu njabootu sëñ Masamba Jaara Mbaye nga nii lépp nag yow mbay lépp nag yow ñici ci ñi ci Ndar ci Tuuba ak ñi lépp yaa fa nekk ñi ca Ndar ak ñi ci Ndakaaru ak ñi ak faneen lépp yow barki rek la fi waa Côte d'Ivoire ñëw indi fi indi la mi barki démb la fa waa Côte d'Ivoire ñëw indi la malaan mii te ñëppay ñëw nag ñëppay ñëw benn baay Serigne Mbaye ci baati nag moo sunu Serigne di sunu sang moog sëñ Moustapha mii fi nekk xalifa te di bàyyi kii bu fi nekkoon tey ñoom ñaar dañu naan ki war ne xalifa wala kii nekk fa ndax ñoo ñoo maase ci sayir ak ci baatin yëpp loolu rek lañ leen bëggoon a xamal nu leen ñaanal yal nañu yàlla seen barke yal nañ ko fekk ay dundi dundi dundi dund lii sëñ Assane ñoom def nag li ñu ñaanal nun sunu ñaan dafa nangu nun ñi nga xam ne noo di seen baay ndax kenn ku ne da doon ñaan ni yàlla naa dund ba am doom ji ma aw aw ngeen nag ci saahir ak baatin yàlla na yàgg yàlla na fi yàgg Cheikh Sadio Ndakan ndax boo dee siyaareb xaabru boo woo néew ba dakkante ko yaayam rek mu wuy la. dëgg la parce que Cheikh Saaye yaa ngi nuy dégg sëñ Assane mi waral bis bi ak sëñ Moustapha mii fi jiite yàlla nañ fi yàgg lool ak nun ñu ko topp ci ñoom yàlla nañ fi yàgg barke Cheikh Saaye yal nañu barke dal yal nañu barke Serigne Mbaye dal. oui rek xam naa rek ñu lu baax ci kàddu yi ñu jël kon sunu baay bi la ñu toog ak sunu bayam serigne Moustapha djiwalo khalifa Cheikh Baye Tidni serigne Moustapha yassine ñu bok ben baye kon it mu représenté it suñu papa ci djiwalo représenté tamit porte parole de keur Cheikh sadji mo bëggon rek mu jox ay kàddu ndénkaan rek rek jëmale ko ci keur gi ak ëtt bi ak mbokk taalib salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaar ñëpp di massaw ñëpp di bal ñëpp ak tay balut ñëpp ak di yëkkati it kàddu yoo xam ni kàddu ndigal la yu bawoo ci sëriñ Moustapha mbay jaare ci moom rot ci sëriñ Abdou Samad mbay mii doon rakkam doon Baye Fallam doonu taalibeem jaar ci sëriñ Baye Samba Jaara mbay mi nga xam ni moo yor kàddu kër gi bi ñëw ci yoon wi oona ma ma jox suñu asan ci ndigalal sëriñ Moustapha ni ma ko waxee ci ndigal sëriñ Abdou Samad mu joxe kàddoom xam ni amoon na yéene ñëw waaye yaram wi moo sutante yàlla na ko yàlla defal ak taw feex di wax ni kàddu yi fi jóg yëpp rafet na waaye ñu am lu ñu soññ rek li des nag ñu xam ni ca barab ba fa ñuy daje ca tànt ba loola xaj na fa ñu def ko fa di wax ni li ñuy tax a jóg mooy siyaas nit ku liggéeyal yàlla xëy na waxtu wi xat na waaye nañ ci junj tuuti lu gàtt rek jox sëñ Ibrahima Ibrahima Fall Mbaye Mali moo mottali bay Abdou Samad joxe dogu ñaan ñu ñaan Euh, li ñu yëkkati mooy ku xiifoon mar jóg war a wuti yàlla di Cheikh Sadio yi jëfit jëf ju rafet la mu xiifoon màng wuti ko Sëñ Tuubaa la ko Sëñ Tuubaa fayee tey ñuy xiif di màng di wuti ci moom te loolu it alxuraan jàngale ko ku ne xam na ne bu ñu toogoon ca barab ba li ñu jàng ci li mu kaamil danañ ko waxe bari na lim bi jéggi na dayo kaamil ku ne xam na ni loo ci jàng doyut waaye benn araf alxuraan bu sunu borom nangu ëpp na ci àdduna ak alaxira kon yàlla na yàlla nangu lépp kon fa ñu toogoon ñaan ko suñu borom naat tablewul ni fu waaye nekk di ñaan mu ngi lay dégg te dana ko nangu incha allahu rabbi ndax yàlla nee na ruus na jaama bi yëkkati ay loxoom tàllal ko ñaan ko ba wàcce te mayu ko la ma ko doon la ma doon ñaan amaa nag mu may la ci noo yëgeewut nga jàpp ne mayu la fekk may na la ndax yalla mën nga koo ñaan lii fekk gënut ci yow mu may la noo xam ne mooy gën ca yow waaye ci ak ñàkk dégg wala xëy na matadik doomu aadama mën nañoo lott ca loola ba duñ xam waaye la mu xiifoon rek moo leen xiif tey li waral nag ñu jóg yitte ji ñëw mooy yitte dafa am solo ginnaaw foo toog ñaan yitte dafa am solo ndax Alxuraan dafa wax ni wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ilaa Allaahi wa rasuulihi du ko al-mawtu faqad waqaa loolu ci misaal dafa am ñu jogoon eh, xool ci missal def ay ndiiraanu picc ruu yi mel ni ay picc ñu xiifoon gis seen borom ñu ci misaal ñoom ñu yoxe misaal ni gis nañ nit ñi am nañu borom xar yi am borom nak yi am borom beuy yi borom wa ñun picc kon ku suñu borom ñu nañ jog sété yalla bu ñu jógee nak sété suñu borom ci ak na melam xeyna na ci misaal yalla fek yalla xaar leen touba ndax yalla mo mu ngi fépp fa ngay déparé mo nga fa fi nga nek yalla ngi ci yow yaa ngi biir yalla yalla daj na lepp waye comme ak sax na mel dafa ne woon la nek nga jog ni na ko sété touba yalla xaar la touba bi ba ci nak ñom ño wax suñu borom niko amna am na ci ño xamni day bi ñëw ci yoon wi dañoo faatu mooy lan ci misaal bi ñu àggee ci réewu sedd yi ñu dëkkoon ci réewu tàng yi faatu bi ñu ci réewu tàng yi ñu dëkkoon ci réewu sedd yi faatu ñu demee ci réew yi am ngelaw ñi dëkkoon ci réew yi amul ngelaw faatu bi ñu demee ci réew yi nga xam ne amuñu ngelaw ñi nga xam ne dañoo dëkkoon ci réew yoo xam ne seen ngelaw dafa tekkaaral faatu ak nag njaboot gi nga xam ne dañoo lompañ amuñu doole ak jigéen ñi des ci kër ga bi ñëwee na yàlla toog ba ci ak na mu daal di génn ne lu ngeen uti ñu leral ko ne ko dañu ñewoon ngir soet suñu borom ndax ñepp am nañ suñu borom te ñun xamuñu suñu borom yàlla leen di jaru ngeen ñew ñëw ngeen da ngeen yàq seen jot rek su ngeen ñewé ma yalla bu ngeen ñewut ma yalla waye bi nak yalla ci bopam daal di gis nak xif gi ak xir ak yegu jog set seen borom gogu ci ak na melam su lu dal ni ak sa kon de yeen dina len nangul may den lo xamni kudul yeen du ko am ñu daal ni ñi faatu nak motax ak ñi ci jabot ga mu daal di ñëw ci ñi ca ña faatu mooy su ma dugg matu faqat waqaa ñi nga xam ne moom faatu nañ ci yoon bi egg si nañ ñoo ko yéen ñoo bokk menn may gi ana njaboot ga nag ñu egg si wul te toog doon lompañ moom la sëñ Abdoulahat Mbacke doon wax ni sëñ Tuubaa fu mu doon liggéey liggéey bi ku taxaw naan amiin sax newu fa woon waaye te ji lay mbaw gi may gi kenn ku ci nekk dem nga ba jàpp ni sax yow yow mooy njaboot gi ndax Assane mii ak Baye Abdou Samad mii ak ñun ñi ba si sa di liggéey ci saayir fu ñu ne te nit ñaa ngi daw suñu ginnaaw ngir jëmmi Cheikh Sadio yi dañuy liggéey dañuy jox ngir jëmi Cheikh Sadio yi di jur doom dañuy tuddee ngir jëmi Cheikh Sadio mat ñu ay baay ak i waajur sukk ci suuf duñu raam ngir jëmi Cheikh Sadio yi la Cheikh Sadio rek la kon yàlla ñu ko yàlla doolee fayal Baye Matar jëf sa taxawaay rafet na ci barab bi raxa rafet na démb rafet na tey ñëw naa fi ay yoon nga ma lu bari sëñ Assane sëñ Assane wéet nañ wax ma ci yow lu bari waaye ma fii de bis boo xam ni bisub ñaan la li fi war mooy ñaan rek ak fàttalikuwaat tam lii Cheikh Sadio li muy foor foor rakkam ja li muy foor foor néew na saxaba yi li ñuy gëm-gëm yonent bi fukk lañ ci wan ni yéen la àjjanay bëggee góor yàlla yi li bari bari bari Sëñ Tuubaa defoon na lu ne Cheikh Samba Diar Mbay dafa woon àjjanam magam jii di Cheikh Sadio yi lañ laata mu ñëw ci Sëñ Tuubaa ne taalibe bañ jeex kenn doo nga des mu bonk léegi ko te ñoom ñaar bokk waajur góor ak gu jigéen yaatu nañ nag njabootu Mamour Mbay ku ne am na cër. waaye tey loolu muy def la muy foor foor foor la muy rëy rëy anam ana Cheikh Sadio fu ñu koy seet ñaar rek nga koy dàkkantelee ana Cheikh Sadio nga ñëw siyaar ko fi ana ko ko fi nekkal nga ni sëñ Moustapha Mbaye jeex na. li muy baax baax baax tey ñu ngi koy siyaar kon ñun ñëpp it ëllëg dañu ñëw ci biir suuf lii mu def nag bañ koy siyaar buñ ko jombale suñu bopp ci mbooloo bi ñëpp laa bu kenn jombale boppam ñàkk jombale boppam moo tax jëmm ji am yëkki ak fulla jéem tek fa mamam tegon tankam ngir sakku barke mamam te bu ko sakku rek am ko amin bak Cheikh Sadio ko nit bu len ko jombal sen bop na ngeen yek ni mayu yalla yi du jeex ba mukk te du dak ba mukk te ku ko sakku am ko kon nañ golu ci sakku ji ko suñ ko sakku rek yalla mën nañ ko defal nañ ki def victé nañ ki def victé ana Cheikh Samba Diarra wayna lu ne seigne touba lu ne def na fi ana mu tay ma nga fële boo demee ndar fek ko fa de foko siar ci kaw suuf mhm. ci biir rek yow yaa ne ci kaw waaye mu ci biir mhm. ana xalifaam foo koy fekk ndakaaru mhm. kon nañu góorgóorluwaat ci jaamu yàlla te topp ndigalu yàlla yi te ko ay tereem waaw te wattandiku ay tereem bu baax te góorgóorlu ci góor yàlla yi li ñuy xiif ci ñoom ba di ko wut ci ñoom ñu sàkku fañ tegoon seen tànk ñu jëm rek teg fa sunu tànk loolu rek mooy mbir mi waaye loo gëm-gëm góor yàlla loo ko bëgg bëgg bëgg loo daw ci ginnaawam te yéey yigteem du sa yigtee bu ëllëgee doo ko gis kon nañu góorgóorlu fi góor yàlla yi tegoon seen tànk ñu tek fa suñu tank te tay la gëna yomb tay la gëna barkel bu ñëk ab téré da nga daan dem ñu abal la ko toogu la nga bindu ko sokko am tay bu la nexé taxaw fi ci penjum Touba juma ju téré ba bëgg am ko bu la nexé tok ci sa appareil do dem sax penc ma dox dugg ci adab bindu asasi da bu la nex du la indil benn mu indil ay ay ay centaine de da nga xol bindu bu la nex nga talasaar sa ko jël ko kon tay la gëna yomb de waaye na buñ ci nagu ta buñ ci tayal limi yomb yomb yomb yomb alal ji bu tour won fi ku seggut do for lekk li muy neex neex ku sàqam ñëwul doo wanaasu nañ def yigte yigte rek mu am solo waaw wasalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi jégalu kon jox. alhamdulilah sëñ bi nee na ku bëgg ku la dalay fekk ci yoon wi kon jox sëñ Ibrahima mu soññee jox sëñ bi mu ñaan di tuub ak di jégalu kàddu yu njëkkati ci wetam doon tekk ndigal la waaye dafay yellul sa kilifa sa waajur sa sang. nga di jaam jamaatam bu matul sax jaam ci këram mu soog ngay yëkkati ay kàddu waruñu te yellu ci ñun waaye mbay sang ñu ngi la koy jéggalu sag baax dong la sag laabir la rek sag yaatu la rek waaye bu sëñ Moustapha nekkut lépp dañuy tuub sax tudd ko sax waruñu moom du suñu yigte yow mooy sa waaye yow yaa suñu yigte moom moom du suñu yigte de yow yaa suñu yigte ndax wér na liggéeyal nga te te na nga ko war a jàppee jàppee nga nu koy kon ñun waratuñu am dara ñun njabot gi yëpp moom du suñu yitte ndax ba mu fi nekkee sëñ bàkki new fi seen bàcc sëñ bàcc du woon seen yitte yéen musta na seen yitte sëñ Moustapha ngeen ne dann rek mu dan dann sëñ kon buñ dee gor ñu la ñu la dann rek te incha allahu rabbi dinañ la dann barke Cheikh Sadio ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax a baax di jéggalu bu baax sax ci kàddu yu ñu yëkkatiwaat eh, ci ginnaaw sunu kilifa yi nga xam ne nañ ba noppi ndax daanaka mat na sëkk xanaa dolli soññee rek fi Baye Cheikh daanale di ñaanal bu baax سري مصطفى يلا يلا جودل فرام يعقل كوفي باي عبد السمت يلا يلا يعقل كوفي لول نكو باي شيخ وخيرك فو فرق لين كوي تمله دي زيارة سني أصلا مينغا خامني مو وو تلي نكو باي شيخ مي وخي نغا خامني لي نيب لا وار واي دافا وير نيغا خامني سي موم لا سيرين بي دون دوندي نغا خامني شيخ ساجي سيرين توبا موكو خامالون نيكو الله يوليكو في الدارين مرغوبا ميرم موم كاو كاو كانم لا جيم te liggéeyam digganteem ak boromam tudd nga ko léegi wax nga ko sëñ Tuubaa moo ko waxoon ne ko laata ngay dikkee di gisanteeg man ñeen fukki at bokk nga ci xutbu samaan yi mhm. bis bi nga ñëwee sukk jébbalu jox ma sa bopp ki mbind mi nga xam ne si ànd na ak moom mhm. keroog benn taalibee ko dese moom la ko bëmaxle mu ànd ak ajana mhm. allahu yulika la ko wax sëñ Tuubaa moo ne ko yàlla ak yonent bi ak sayyiduna muhammadu rasulillahi ñoo ñee ñoo indi ngërëm indil ma ko fii daare ni marxuba xataa tasira nag la wax ba yawmal qiyam ko andal yow Cheikh Sadio mhm. aljanna la jëm. kon xamna ni ginnaw barabu siar la dañi gattal rek li ci des ñu àggale ko ci barab ba ñi ngi ñaanal nak Serigne Assane ci barke mam Cheikh Sadio mhm. sunu borom guddal fanam ndax li kat. Mhm. defe naa ne ku bok ci Cheikh Sadio ak Cheikh Samba Diarra ak Mame mbey ak fo meuna bok war nga ko ñaanal ndax lu bax lu bax rek la tuddu teet am yitte ci niko serigne bi waxe xamni liggey lu bax rek am solo ku liggéeyul do am. man faala ma shaa laqiya ma shaa mm. ku def la la neex la la soob rek ngay gis mm. waaye ku di dënn na gaa yu baax yi mm. faaw rek ni ko sëriñ bi waxee nii léegi ku jaar ci yoon wi rek li nga bëgg di ko am allahumma salli ala sayyidina muhammad kon la ca des moom danañ ko àggalee ca barab ba wasalaatu fu mu nekk ku ñaan yàlla dana ko nangu ndax gémmiñ ngay nangu amin yàlla rek moo ko xam kon noonu wax sëñ Moustapha Mbaye yàlla na fi yàgg te wér mbooloo wax leen sëñ Moustapha Mbaye yàlla fi yàgg te wér sëñ Moustapha yàlla fi yàgg te wér barke Cheikh jërëjëf Cheikh Sadji barke Cheikh Sadji yàlla yàgg kenn yéex kenn dal إن الذي جاد لي بالميم والنون لمن كفاني ورواني ودمني يا راعتي ساكرا كاللوح والنون هدي وودي ورضاني وما مدد من عباد قد فاق مسنوني لمن باني لمن باني لمن باني لمن باني sëriñ maam Cheikh Sadio Mbaye borom gandi galang ak na liman la لمن هباني بما قد فاغ مسنون يا ربي يا نظير منك مكنون نبيك المصطفى مصطفى مصطفى كن بنياتخ نبيك المصطفى مصطفى يولانو تن مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى كونو بند يا تخ نجول مكة نبي نبي nu koy lawal di ko yaatal ci jëwriñ kër yi nga xam ni moo tax tey toog fii tax nu tant tant bu rëy bii ak jataay bu yaatu bii te lépp di jataayam njariñ mu di kan sëriñ Mourou Moustapha Mbaye di xalifab Cheikh Sadiay Mbaye ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom mbay yàggal ko fi lool te wéral ay cëram yéene ji ne ci moom ak li mu sumb tanar ko te yéene ko ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ba koo liggéeyal maamam ja Cheikh Sadieye yàlla ko jàlla fekk defal ko ci lu kawe ay njottoom tamaanu ko noonu ci barkab Cheikh Sadieye noonu lañ koy ñaanale la tàmbalee ca maam Serigne may waajuram ma jëkk wutu maam Cheikh Sadieye Mbaye ba ci Cheikh ma sàmba tëdd yàlla na suñu borom doole seeni leer yokk seeni ngërëm ci barkab Seexuna Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di siyaare kulli koo xam ni yaa ngi ci jotaay bi tàbbi nga fas yéene ànd ak liggéey bi ñu ngi ñaan ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim waaye delluwaat di ñaan ci yàlla suñu borom àggalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin barkab xaadim sul kon mbooloo mi bis bi doon xaar ni ko sëriñ bi waxee woon mel ni nëgëni daaw fii leen toogoon tant tant bu rëy ci pàkk bu sell bu barkeel bii toog def jataay bu mel jëme ko ci jàmbaare suñu Bamba koo xam ne léppam da koo jeexale tàkk ci Cheikh na Ahmadou Bamba muy Cheikh naa Ndiaye Mbaye lu dem ba ci jeexantal ga ku la jox suñu borom loxo dékk sëriñ bi ay loxo sëriñ bi ñaanal nu nu dellu ci yitte yi wax ne ba déwén déwén joojee mu ñëwaat tey jii kon nu ngi dellu ñaanaat ci sunu borom yàlla na ko delluwaat teewe ay déwén di déwén yu bare bare bare ci barke teewaay bi nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ci lu bare bari cant li ci jiital yàlla mooy nëgë ni daaw ñàkku ñu fi nekkalan di ay doom aadama di ay julit di ay taalibe tey ananu ñeneen ñaa nga ca armeel ya nun ñoo fi desandi te ñooñee dem ñàkk fayda yóbbuwu leen ñàkk a jaamu yàlla taxul yàlla jële leen fi ñàkk tegu ci yoon taxul yàlla yóbbu leen nun ñii fi desit fa taarakallahu dëgër bopp ak bari pexé ak man man ak lijeenti bayiwunu fi app ba jot ñom dem nanu yalla yalla xare na jana nun ñoo fi desandi te ak yag dañi dem waye ñu ngi ñaan yalla yeex ci barka seul khadim waye limi yeex yeex lepp yalla sun borom xirtal ci lu gëna bëgg señ tuba gëna nagol señ tuba khadim sul xamne mo ñëri aduna mo di ñëri alakhirah kon loolu ñu ci sant yalla bu baax di ñaan yalla ñi nga xam tan fekk nan ko ak bakan waye wéeru di tënk leen ba mëno noo ñëw yalla yàlla saafara seen bépp jangoro ñi nga xam na yité leen té amana na yéen am pass pass tab ci jar ci barab bi waye yité dab leen ba mëno noo ñëw ñu ngi leen di ñaan yàlla yitte joojee yàlla yitte jàmm la ñuy doxee yàlla jàpp ni yalla safar ak japp ne mu yorom lool té lan cey yoot ak lan cey sentu yalla ca dajé ak mom waye lan ca dakk yalla mën ko gëss ci barkab khadim Rasuul bu ko defé da lan yëkëti kaddu gi ni mi tëddee sëriñ Basiiru Seck moom Cheikh Sadio di jàmbaar mooy dalal gan ñi moo ni limal mboolem kilifa yu teew ak li fi xew bi jant fenkee ba léegi ci alxuraan ji ak xasida yi ma la xew ca barab ba di barabu Cheikh Sadio ci almeelu njëkk yi buñ ci jógee daanu jox bàyyi Cheikh Mbay moom sëñ saa Mbay Jiwaalo dana jël kàddu ci kaddu sëriñ bi sëriñ Alaaji Fàllu Buso dina jël kaddu ci mboolem seexu yoonu murid yëpp waaye na jël kaddu mboolem ci bokku lislaam gi buñ ca jógee sëñ Ibrahima Mbaye di conférence bu mag ñëpp xam ko diggante ma kër Cheikh yi muy lu yàgg lool ñëpp mi nañ ko ci rajo Fall FM ba muy door mu doon jàmbaar di borom positif mi ngi nii toog daana jël kaddu incha allah ane as la fàttali nu kan mooy Cheikh Sadio yi diggante nag sëriñam ba sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim Cheikhuna Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul lii lan tënkagut nii moo fi a jàll incha nag programme nag dama ni murit nag man naa programme waaye programme bu mu xam fu mu yem. kon lii mooy programme bi lii leen tëralagun kàddu yi boo ko joxal gën gaa bari ñeenti kàddu la leneen la ci des koy noppalu bàyyi ba guddi sëriñ ba Mbaye mbay allah bu dee ba reer ba dee sax ci tànt bi toog dana ñëwaat waxtaane waat jàmbaar ji Cheikh Sadio xuus bu baax a baax ci lu bari bari incha allah rabbi ndegam yàlla. kon bu ko defé serigne bassirou sek la baye kaddu gi assalamu alaykum mbokki julit yi mbokki taalib yi noo ngi ah, di jital ci nuyo bi ki fi nekkal serigne touba di serigne touba serigne muntaha mbake ibnu si Amadu Basiir mbake ibnu khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam diko ñaanal mu yàgg fi lol ti wer nu yàgg fi ak mom nu yàgg and liggéey serigne touba di ko ñaanal serigne Cheikh Jëmb Fall khalifa mam Cheikh ibrahim Fall lamp baawul muridiina waye di ko ñaanal nak sunu sang ba khalifa Cheikh sadie Mbay serigne Moustapha Mbay ibnu mam serigne Mbay no ngoy ñaanal mu yag fi lol te nu yag fi ak mom ndax mom kat wóor nañu ni ak yagam fi sunu njariñ la ak yagam fi njariñ la ci kër Seex Sadio mbay waaye nuy ñaanal bu baax Serigne Touba Serigne Sidi Muxtaar Mbakke sama borom yàlla dolli ko ay leer te taas ci barkeem bis bi nag bisub Seex Sadio mbay la ba tax na ki fi nekkal Seex Sadio Mbaye euh, Serigne Moustapha mbay xalifa maam Seex Sadio mbay yabal na fi rakkam ji sës ci moom di ab baay faalam di ko xam ni nun ñi ko xam ñëpp xam nañ ni baay faalu kër Seex Saajay Mbay la ku woyaf ku fees dell ak baatin ku baax lool bëgg taalibi bëgg njabootu Seex Saajay gi lool bëgg taalibi Seex Saajay Mbay lool sëñ Moustapha nag moom wax dëgg yàlla euh, nun gën nan koo bëgg ndax ni mu bëggee sëñ Moustapha Mbay te tàmbalee ko ca taaw taaw maam Serigne Mbay ba Baye Seex Mbay euh, rakkam Serigne Modou Abdoulahi Mbay di doomi Serigne Basiiru Mbay moom Seex Saajay Mbay moom it mi ngi nii toog waaye euh, Serigne Fàllilu Buso di kenn ci njabootu Serigne Buso bi Buso teew fi ah Gele Buso nak kenn ku nek xamna ni yoonu murit bu ñuy wax xam-xam ak dundu sunna mom ci ñom ci ñom la yam teew na fi itam Serigne bara Buso momit di kenn ci Gele Buso teew na fi itam comme ni ko wax waan Serigne Abdou samane Mbaye mi nga xamni moo fi teewal sëriñ Moustapha Mbaye waa Louga itam waa Louga gépp teew nañ fi sëriñ Assane Mbaye maanaam ay ay waajuram ay ndeyam ay magam maanaam xalifaam sëriñ maam Cheikh Mbaye mu sëriñ Moustapha Yacine di magam di léppam di sëriñam di léppam teew na fi waaye ay eh, njaboot gu jigéen ña ak góor ña kenn desul waa Louga ñëpp teew nañu maanaam sëriñ Assane Mbaye ay bokkam ci kër baayam ñëpp teew na waaye ay bokkam ci kër ndaayam itam ñëpp teew nañu ndax nag ku woote ñu wuy si la daa da da da da lu tax maanaam ñu la sëriñ Assane Mbaye nag ku nekk xam na ni jëbal na nit ñi lu tax bu wootee ñu wuy si ko euh, teew na fi itam soxna Faati Mbay Basiiru moom it di kenn ci sëti Seex Saaja yi jàmbaari Seex Saaja yi ci la bokk teew na bi itam soxna Kumba Lawbe Mbay ma ñu duppee ku Kumba Lawbe Mbay mu Seex Saaja yi nga xam ni nun ñii bokk na ci jigéen ñi nga xam ni eh, ci njabootu Seex Saaja la lañu bokk nun waa Ture ku Kumba Lawbe Mbay mii ak bàjjanam ñoom lañ jëkk a xam ci njabootu Seex Saaja gu jigéen gi ca Ture ngeen ba tey ji tàqali ko wul nun ma nga jóge Seex Saaje yi moom i teew na fi soxna Ndey Mbay moom Sëriñ sàmma Mbay sunu sangu baax ba moom i teew na fi ànd ak waa Madiyana yëpp daayiratu Seex yi Mbay jigéen ñi ñëpp teew nañ fi soxna Caane sek moom Sëriñ ma sàmma Mbay moom it na ak njabootam ñoom ñëpp teew nañ fi soxna mam Busa Mbay mu kawlak mu serigne mbake Mbay mum cheikh Samba Jaara Mbay momit tewna fi euh kër Sëriñ Moor Xuja Mbay waa kër Sëriñ Moor Xuja Mbay ñoom it teew nañ fi teway bu rafet comme andi bay teranga teraanga yu am solo comme ni ko ñëpp defe serigne Ibrahima Mbay conférence moom it teew na fi hmm. sëriñ Moustapha Abdoul Ahad mi nga xam ni moom la sëriñ Moustapha Basiiru boole wan ak njabootu Seex Saaje yi mu mel ni moom damay wax ni kon la si Abdoul Ahad Mbacke ak sunu mag ñi ca Touré ngeen nga xam ni ba ko Seex Mouhamadou Moustapha Mbacke yabalee euh, kàbb gay maanaam sunu mag ña waa Touré ngeen li tàmbalee ci Baye Waseynu Baye Babacar ak seeni doom ak seeni sët fu sëñ Abdou Lahad Moussa jëm ci Kajoor ànd ak ñoom ñuy yëkk di jës boog mu waaye boog mu xaddimaat Cheikh Abdou moo mais man damay wax ni kóllëre googa moom la sëriñ Serigne Moustapha Bassirou gis ci baatin moo tax mu féete la noog doomi Cheikh Abdou Lahad Mbacké Serigne Moustapha Abdou maanaam nag li ñu ko féetaleeg nun ñor ko lool xale ba gën tuuti tuut tànk ba gën a tuuti man mi nga xam ni maa gën a ñàkk solo ci nga Cheikh Sadio su ma waakoon dugg ci kër ga ni ko njabootu Seex Sadio Mbaye soxla nañu lu mu jàppan dana ko bàyyi daal di ñëw maanaam tey bi nu fa demee ci bëccëg nun ñu xeebu ñii di bàyyi baali Seex Sadio yi nu jaral ko génn dafa dafa dafa dafa fat woon waaye ban ban yëgloo maanaam nun rek nun ñii rek jaral nañ ko génn ndax fonk bu fonk xas Seex Sadio Mbaye génn wax nun bég lool ca xéewal leen doon yóbbu wax nu ni bu tàkkusaan jotee dana ñëw maanaam léegi la fi jóge euh, kon bis bi sëriñ Assane Mbaye dama wax ni maanaam li ko maamam Cheikh Sadio Mbaye defal maanaam lott na ci sant ko na mu ko bëgg a sante moo tax nag mu woo njabootu Cheikh Sadio yi mbay gépp ak taalibe Cheikh Sadio yi mbay yépp ak bokkam yépp ak xaritam yépp waaye dëkkandoom yi ndax kat dëkkandoom yi wax dëgg yàlla mënu leen a fay waaye ki ñuy liggéeyal am na pay ndax maam Cheikh Sadio mbay day wóor na ma ni ku ko lebar ker mu faye mu fayee guddi li fi nekk lépp baas bi siège yi mbooleem lu fi nekk maanaam waa koñ bi ñoo ko defar ba mu mel nii nun ñi nga xam ne taalibi Cheikh Saaye lanu mu waran nu nun danoo sangu rek ñëw toog kon na ñooñu mën nu leen a fay waaye ginnaaw mën nu leen a fay nag am nañ ko mën a fay muy Cheikh Saaye yàlla na nu Cheikh Saaye fayee leen ah sëriñ Assane Mbaye nag comme ni ma ko waxoon wax na ni maanaam lott na ci ni mu bëgg a sant maam Cheikh Saaye lott na ci sant ko moo tax mu woo ay bokkam njabootu Cheikh Saaye Mbaye gépp teew taalibe Cheikh Saaye Mbaye yëpp teew Sëriñ Tuubaa ak moom waxaat na ni ba ñuy wax ni gàmmo dafa araam dafa bidaa la gàmmo bidaa la mu ni bu fekkee ni teg nañ ko ci sunna dey maanaam dana la wom mat ba ku ko def te teg ko ci sunna dana la wom ba tàbbalaaje na muy tanzimoo bi sunnati yaqoodunaa lil jannati bi ziyaadul minati li moxlisin maasami moom nag bis bi teg na ko ci na ndax waa daara yi sëriñ Mbàkke loo jàkke yi sëriñ Aliou Mbàkke di ñu baax maanaam ñoom ba ñu gàmmoo ba noppi rek la tàmbalee jàng seeni kaamil ba tax na jàng nañu bi li mu day sun li mu day sun nag soo ko viree mooy ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñeent ñoom jàng nañ ko ba ñu tàmm ba ñu gàmmoo ba noppi rek la tàmbalee jàng jàng nañ fi ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñeent euh, benn daayira bu nekk Itaali euh, moom it euh, ci njiital sëriñ ci njiital sëriñ Aliou jàng nañu téeméeri jaali ba du mu naq mi ak ñaar téeméeri jaalibatul muraqib ak ñaar jàng nañ ko waaye jàng nañu fukki wakaana àqan ak ñaar waaye jàng nañu juróom ñeen fukki muwaay bu ak juróom waaye jàng nañu tawfatul mutadariina juróom ñaar fukki tawfatul mutadariina waaye jàng nañu sindiidi euh, euh, juróom fukk ak juróom ñaar euh, li ñu jàng lépp xëy na jitaay bi du may du nu may nu leeral ko lépp waaye eh, incha allah bu ko yàlla dogalee bu nu dellusiwaatee li nu ci leeralul woon danañ ko leeral maanaam sëriñ bi nag moom ko tedd ki wax ni wajtani boo axwa an nafsi wabtidaa wattaqiloo fii kulli aynin bi tibaayi maanaam sëriñ bi wax ni na ngeen wattandiku bànneexi bakkan tay top sunna negen ngeen wattandiku bànneexi bakkan tey topp te te wattandiku bidaa na ngeen topp sunna ndax sunna kat sunna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom soko topé manam toppee maanaam boole na yëpp yiw maanaam lépp lu bax rek mi ngi mi ngi ci top sunna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waaye wépp ay nag mi ngi ci topp bidaa wépp ay wu mu am ci àddina rek ak alaaxira mi ngi ci topp bidaa topp sunna nag mooy li sallallahu alayhi wa sallam ba xam ko topp ko topp bidaa nag mooy li nga xam ni sallallahu alayhi wa daan na ko tere nga fa xam fexe ba xam ko di ko moytu kon nag euh, jitaay bi euh, euh, ñi fi teew ci taalibe yi sëriñ Njaga Sekk ak njabootug sëriñ man damay siin waa di Touba Madiyana teewal nañu fi sëriñ Amdi Yaram Sekk mi nga xam ni mooy xalifa man man damay siini waaye sëriñ Moustapha Mbay di kenn ci eh, sëriñ Moustapha Mbay di kenn ci jàmbaar yi Seex Saaje yi teew nañu fi waaye nuy jégalu bu baax eh, ci eh, kàddu yi ndax sëriñ Baye Seex Mbay mi nga xam ni moom la sëriñ Moustapha Jiwaalo yabal moo fekk fi ay baayam ak i rakkam moom it mi ngi nii toog waaye sëriñ ba Basiiru Mbay moom Baye Seex Mbay mi nga xam ne mooy taaw Baye sëriñ Mbay moom it mi ngi nii teew kon xam naa ñu tënk foofu kàddu gi rek tey jégalu bu baax xam naa lu nu ci wax lu lu lu jubul tam maanaam lu jub rek lan lan bëgg na wax luy jariñ doomu adama wasa noo ngi jéglu ñëpp di jégal ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di baal ñëpp àq tey baalu it ñëpp àq. bala ñuy yëkkati benn kàddu ndax moom lay wax léegi sëñ Bas fu mu teew sëñ Ibrahima Fall mbay teew fa lay soññee ci diine ak ci pas-pas ak ci taalibe. mate nañ ko sëkk kon yàllatul sax ñuy wax di jëm ci googu wàll li ñuy tuub nag njëkkee mooy jotaay bi nga xam ni ñun toogandoon nañ kook suñuy kilifa ci kaw te waruñu ndax li ñuy waroon dëgg mooy ñoom ñu toog ci kaw ñun ñu toog fee ca bàq ba waxuma sax ci siis yi jàkkaarloog ñoom ndax ñun ak ñoom la dox sunu diggante dafa bari te yoonu murit li sëñ tubaa jàngale woon mooy ak taalibe tey it ba àdduna yi tukki ci la ñuy jariñoo tey ci lañuy jariñoo it ëllëg kon it ñu ngi ciy tuub bu baax jotaay bi nga xam ne toog nañ ko ak ñoom di ñaanit it ñu jéggal ñu ko liñ ci dolli mooy sant bu baax mbooleem kilifa yi di ci jiital ki nga xam ni mooy sëriñ Fàllu Buso li tax ñu di ko jiital waa Mbuso bi sëñ Tuubaa moo leen jiitalal boppam ndax ku ne xam na ni lu ñuy def ci diine mbaa bu ñuy wax imaam ci biir axlu mbàkke bu waa mbusoo ba ñëwee ñu jox leen loola muy seenub cër defub suñ tubaa nag day mat a téye jàpp ko dund ko te muy dëgg ci yow mu mate ko it sëkk ndax sëriñ saaliw mu baax ma ki nga xam ne kenn la ci njabootu sëriñ tubaa waaye kenn la ci mbindeefu sunu borom yi ndax ku ne xam na ni day gudd waaye eh, bopp téeméeri at bu nekk suñu borom dina yebal al muhafisun wal mujaddidun 1895 ku ne xam na ni sëriñ bi li mu am da ko indiwaale ci jamono waaye bi koy borom bi di jox la mu ko jox ci géej gi la ndax moom moo jaayanteeg sëriñ boromam ak yonent bi fii ci jàkkee daaru xudóos ji bi mu demee géej it moo ko waxal boppam ndax lépp lu mu am ci la ko amee lam doon ut itam mooy doon kat yonente bi te moo Allah wax Rahman fi safina bi annani hadima sil madina kon pas pas ak lepp 1895 da ca euh, don lo xamni moy li wer waye ku ne xamni serigne sëriñ Tuubaa bi mi ñew leppam matna ndax ka xamni lat lata yalla bind dara xamna la lepp lata sunu borom bind dara jox na la lepp kon sa lip nga indale. waye ci ada ni mu baxo ci lañ ko joxee li serigne sëriñ yit it 1895 moo fi nekk xalifa di soññe ak màggal wax na ni ba muy wax màggal gi damaa bëgg ñu màggal màggal gu xam ni maseesu koo màggal ci olof nag lu musta am lu yees kon dugg na nga xam ni moom dafa taxaw taxawaayu mu jaddit ci biir kër Serigne Touba moom moom itam moo ñu ko yebalaloon moom Serigne Fallou Bousso indi ko mu nekk ca Jiwaalo doon suñu imaam dañu jiite it mat ko it sëkk te loolu xaju fii day leneen waaye cosaan lu yàgg la ndax sëriñ Abdul axat la jógee ba mu koy tànn ak na mu ko tànnee woon yëpp waaye comme xëy na jotaay bi xat na ñu tënk ko noonee rek di sant bu baax itam sëriñ Fallou Bousso ginnaaw bu ñu ko santee nag sant sëriñ Abdou Samad Mbay mi nga xam ne ñi fi nekkal Cheikh Sadio yi moom mooy seen kilifa yàlla dogal itam ginnaaw sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbaye yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ginnaaw buñ ko ñaanalee sëriñam bu tedd ba di sëriñ taxa mu sëriñ Bassirou yàlla na fi yàgg lool te ànd ak ba naa li nga xam ni yéene na koo liggéeyal maam ju tedd ja mu def ko ba eggale ko ci sagoom ba am ci lu kawe ak njottam te ànd koog taalibi Sëriñ Tuubaa yëpp ak njabootu Sëriñ Tuubaa gépp di ko ñaanal kasaali ka sëriñ Cheikh Jëmbu Fall ak mboolem xulafaaw yëpp yi nekk ci yoonu murit nag damay ni ni ko sëñ euh, Baye Bass waxee léegi ginnaaw bi mu nekkee njabootuk Cheikh Sadio yi dafa dund moom leneen dafa jël njureelu Cheikh Sadio yi moom jël njureelam gi nga xam ni maam Serigne mbay moom mi sëriñ Assane dara jalee bis bi ginnaaw bi mu ko tuddee sëñ Ablaat doon waajuram am bépp cër bu nit di am ci kaw suuf defit loo xam ni dégguma nit def ko ci kaw suuf ndax fii ci Gandigal ka ko yi woon ba tey mu ngi dund di Joosi Jaañ baayam ma Jaañ dafa wàcc liggéey fekk maam Serigne ñëwoon Gandigaal jóge fa dem Mbuur Joosi Jaañ moo ko oo itam mu ngi dund bi mu koy oo ñëw xamal ko ni ko waajuram wàcc na bi mu ñëwee moom maam Serigne daa ñëw fàttu ci néeg bi ba mu ko dekkale ba mu génnee dañuy dàq na israfil bu mu ko xëtee daa gafaka gi mu defoon ruu yi daa tuuruwaat ci kaw suuf mboolem ku dee woon dekki nga dekkil àdduna moom amagut ci biir islam man dégguma ko te baayam moom mi def na ko waaye loolu yëpp da koo jël teg ko ci suuf moom juree ko jëndee ko ak taalibe ba ñëpp xam ne bu ñee bàyyi faalu kër Seex yi ci góor moom xel du dem fenn fu dul ci kër Sëriñ Abdou Samad yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ku déggal magam la ku topp ci cëru magam la gannaaw ba it ñu ngi sant mboole mbokk yi fi dajee ci ku sant mbay góor ak jigéen waaye nag mboolem mbokki taalibe yi ñu ngi sant ñëpp góor ak jigéen sëriñ bi wax na ni it mu ngi sant mbokki Touba ndax doomam jii sañ sëñ bu ñëwoon di wootee lu baax di liggéeyal maamam te àndu ceeg njabootu Cheikh Sadio gi kon du safe waaye ba mu takkee ndiggam nag xeeñ fa ay maamam tegoon tànkam jéem teg fa tànkam da ngeen a góorgóorlu yéen tam xam ni mu ngi ci yoon wi ngeen tamp seen xel te topp ko teyit gan gu wàcc Touba bokk ci njabootu Cheikh Sadio yi yéen a koy bernde yena koy dalal yena koy gunge kon sëriñ bi néna sant nañ bu wër gërëm nañ bu wër di sant it ay jigéenam yu fi teew yépp ndax day goor ak jigéen waye benn waccu way a ko bok muy Cheikh Sadio yi ndax seen baye ya bok benn wajur muy Cheikh Sadio yi sant nañ bu wër gërëm nañ bu baax bu ñé Cheikh Sadio nak tuddu talibem ba rakam ju bax ja Cheikh Samba jaara ta ak njabotam ñu ngi fi ma ngi wax ni Cheikh Samba jaara Mam Cheikh Sadie musna ko am lu koy mu wër ko mu muerko ci mom amako mu jël ab puso wax jam ko ci bakkenam tak ci buum ñew ba ci Cheikh Sadie ne ko la nga doon utloo de mel na ni xawna naa laatu waye nak jëm ngi ni ni ko teyel bu la nexé nga jaay ma faj aajo bu la nexé nga ne ma deqat ren ndax yaama mom nonu noonu la ñuy kilifa tayit ak njabotam ñu ngi fi tay ma ngi leen di seereen nit non lañ topé seen kilifa jëlé xamna ci dara sëñ Assane nag ginnaaw ay magam yi fi teew ñun ñi doon ay magam yéen xam ngeen bu baax sant nañ ko laataa santuk sëñ bi di ñëw sant gi ñu sant mooy ku ne na ni bis bu toll nii ku ko woo sëñ maam Cheikh nga na le déggu leen mu wax de te jëlugu fi kàddu ndax lan su ma jógee ca sëñ ba mu doon seen magi waajur maam ak sëñ Assane waaye sëñ maam Cheikh moom mooy sama kilifa moo gën a jege Cheikh Sadio fop waaye bu ma ñëwee fa may xoolee mooy fa ma jógee ba du jël kàddu buñ dajee ñun sëñ Bass mooy sunu kilifa. amuñu kàddu c'est-à-dire la joxee cër la joxal ci kaddu sëñ bi ñi ma woo koo gàntal waaye li ma ko wax léegi moom fu mu teew ak mbaaxam la may joxe waaye warut sax ma yëkkati jëlee naa kilifa yi waaye sëñ bas warul teew ma yëkkati sunu mag la sunu te sunu kilifa la te mat na it li mu doon. sëriñ bi nee na sant na si Assane ndax ni ko góor a waxee musul def musul def lu mu ko ñëwul diisoo ko ak sëñ bi li nga wax mooy li man maa doxoon ci maay dox ci diggante bi ndax man lay woo maay wax sëñ bi tontu ko ko sëñ bi wax. li wér te mooy ba fi sëñ bàcc jógee dafa ko wax fi ñu jaar yëpp ni ko nag la fi sëñ bàcc yëpp jëfama waaye nag la sëñ bàcc jëfoon tey mu ci sa loxo yow la ko dénk boo ne ma wëyal ma wëyal boo ne ma dagg ma fàtte loola ndigal ci lay wëy sëñ bi ni ko jox naa la ci ndigal xamal ko it ni njabootu Cheikh Sadio yi la may mitti mooy dégg leen ci lu baaxut waaye lu baax fuñ ca nekk am ngeen ci ndigal saa ngeen may tàggu ndax bu fekkul woon loolu Serigne tubaa kon du seexal kenn seen maam yeen biñu top Cheikh Sadio seigne Touba ngi fi biñu top wa waa seigne Touba ngi fi biñu top mam Cheikh Fall ba ku topp ci Cheikh abdallah Yaqin seigne Touba ngi fi su ko neexon nak kenn du top kenn ndax kenn defu ci lenn ku lu seigne Touba waaye ak yaatalam mo taxol mu joxoon kenn ku ne ab samp ngir nga tal fa nga nek diine kon seigne bi neena fu waaye nek te sante mbay te dundu seigne Touba dundu seigne Touba te dundal ko am nga digal ci la nga nek bo def ay pexey sa pexey bop nak bu la ci joxe ndigal amo ci ndigal ndax njub rek la woote la ka top mu ngi digal nit ñi ñu wat ci ak top te gëna top toba sëriñ bi fi nek di sëriñ Tuubaa di sëriñ muntaha sëriñ bi nee yëngu-yëngu yi di ñëw mu tuddee ko élection ku ne yaangi wax ku min ay waxam deug neena na day fi mu leen di wax neena amul parti benn parti la mooy muntaha. nee na moom it amul du benn kàddu la muy sëñ Muntaxa nee na li mu leen di digal mooy la murit amee woon doole ñu dellu ca doole ja takk suñuy ndigg jox sëñ Muntaxa nopp fu ak bëggam jëm ñu jëm fa fu mu jëmut ñu noppi ca loola bu ñu ut bëgg bu ñu ut bañ murit du bëgg dara du bañ dara na sëñ bi di ak bëggam rek te ku ne xam ne sëñ Muntaxa mi fi nekk sëñ Tuubaa musta bëgg dara musta bañ dara moom ku fi nekk sëñ Tuubaa yaa di bëggam kon buñ dé ay gor nak te war koo fay nak muy fay nar bi xorom bi nañ nak nangul ko mom ak kaddom ta kaddom moy dolem nee kon képp ko xamni ne yaa ndigal ci Cheikh Sadio na nga duudee lola né nak sant na ci yalla ndax musul dégg mukk talib Cheikh Sadio fenn rawat dal Touba gi buñu dégg nañ ko ci benn yëngu-yëngu bu dul yëkkati ku ne xam ni ngeen ko waxé légui bi ngeen démé ci seigne ku ne fu jass bu joggé wala fu moy bu joggé wala fu muxadamaat joggé xel dina dem ci kër Cheikh Sadio yi la ngeen doon woon seen maam yi ca Kajoor doon ko ca Louga doon ko fu ne doon ko ba ca kokki ba ngeen ñëwee fii nee na soppi leen doxin wi nee nag yoon waa ngoog mu ngi fàttaliwaat nag moom nii moom dañ ko tudde Cheikh Sadio yi nee na matu ko matu ko gi mooy taalib Cheikh Sadio rek la fas doon nee na fas yéenewul doon lu dul taalib Cheikh Sadio yi képp di ñaan ñëpp ñaanal ko Cheikh Sadio yi nangul ko ak taalibeem nee na it liggéey boobu mu liggéey Cheikh Sadio yi xoolu ci kenn gesuwu ci kenn ku dul sëñ Muntaxa la Cheikh Samba Diarra waxoon sëñ Tuubaa rek ne moom lañ joxoon sëñ Muntaxa di ko ko wax maa ngi taxaw ci sa ginnaaw jublu la woon ñeneen gannaaw foo mën a jëm yóbbu ma gaaw yàlla ak sa barke maa la gëm sëñ Muntaxa ne li wax leer na ku dem ma dem ku dem ma dem ndax day dem sëñ bi nag nee na wóor na ko ne na amul xelu sëñ Muntaxa waaye nag dàkk na tànkam te mu ngi cay sa samp sa xel fi ñuy daale ne nañ gën a góor it ci njub Sëriñ Tuubaa njub rek la fi indi tilimalu dara wanewut dara yàlla ju set wicc la fi indi yonent bu set wicc la fi indi lim bind tey ji ci ay téere fiq def ko ci ay majalis benn téere bu Sëriñ Tuubaa képp boo ko jàngee te dégg ko bu nit ñi jàngoon xam-xam yépp bu ñëwee nga peeg leen kon ku naan Sëriñ Tuubaa nangam déedéet ki am lépp man lépp te ñëwagul ci jamono su ko neexoon bu ñëwee def leneen njabotam gi tuddé ay njabotam budé ab cër la nit di wané budé dee daraja ngay wané budé dee juddu ngay wané ñolo ko ëppale té dañ ne dan sëriñ Touba kon néna nañ sax ci njub té jangal xalé yi xam-xam té yar leen ci yaru diina mu yaru alxuraan te ñu fa mag ñi tégon seen tank ñu déko seen tank ku bëgg lu baax dang koy roy kenn ku ne jël nga sa dënd nak ni murid la kenn ku dënd nga sa murid ni man sadiq la waaye murid na mom fa ñu koy xamee moo ñu na sëriñ bi rek lépp lu sëriñ bi di digle na nga ca ne ba ñëpp xam ne yaa nga ca lu muy tere buñ la ca gis dañ naan topp ndigal wattandi ko tere tere moom du lu ñuy baax dañ ko war def ba di ko baax. ni nga gën ko waxee léegi tax si moo bi sunna ci Sëriñ Tuubaa li mu indi mooy dund rek ci sunna li mu indi it mooy góor góorlu jaamu yàlla ngir ñu mucc ëllëg defar àdduna ëllëg moom defar àllaaxira ëllëg yooyu du du pas ci ñun murit du lu ñu war a waxtaane sax li yitte gi moom mooy gàccaal ñëpp ci diina bañ xam ni ndongay Sëñ Tuubaa yi kenn du ñoom waaye suñ Tuubaa defar na ay defar naag yi yooyu gàcca la ci ñun la ñuy war a posté foofu mooy ku ne jàkk ndonge Sëñ Tuubaa ana sëriñ ba la waxoon ni moom nga xam ne yonent bi amul nawle derul jàngi taarix kaay xool ma man suñ Tuubaa sama doxin nga xam ne yonent bi amul nawle bu ñu bëggee xam ni Sëñ Tuubaa amul nawle nag nañ ci góorgóorlu mel nu kenn melut loolu rek lañ koy sagale kon nañ ci gën a góorgóorlu te delluwaat ci njub nee na jërëjëf sëñ sant na la gërëm la doomam nga taalibeem nga teg nga sa tànk fi say maam tegoon say tànk déggal nga say waajur déggal nga say mag mu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla musal ci am ndog sagam nga fii lu wér sagam nga it ci njaboot gi fu mu la dégg ci lu baax la lay dégg fu mu yëg ci lu baax la lay yëg xam nga njabootu Mbuso gii fi daje tey sëñ Mamour mi ma ko xamee ndax moo njëkk ñëw jiwaalo lu jiitu sëñ Fallou Moussa mii di ñëw daan ñu jiite ginnaaw bu fa sëñ Guèye jógee moo tax ma lu gudd la ñii dañoo seq ñoom lu yaatu. caaxaan yëkkatiwu leen sëñ Mamour du yëpp la ci caaxaan sëñ Fallou mi ma xam caaxaan yëkkatiwu ko la tax nga gañe leen gañe waa sëñ Daara sëñ yi ba kenn ku ne mën a ñëw yëg ñëw ci yow sa jikko la yonent bi lañ ko takkee nag jikko rek la sa waajur nee na fa nga teg sa tànk ba ñëpp ni yow yalla yalla musal cim ndok ba doko fa teggi neena nak gis nga yoon wi teg nga ci tank nee loy ragal neena na ta dox neena nga wéy ta dox inshallah bo boo ta dox da nga egg di jéggalu fofu ba di taxalu kaddu yi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi fi tew yeb ñogi leen di nuyu te di leen siyaré te di leen balu àq te di leen bal àq tay ñaan bo leen nu jéggal ci daraja sëriñ Tuubaa kii war jiitu mooy Cheikh Mouhamadul Muntaxa al xalifatul aam li taaifatul muridiya di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba mu àggale mboolem lu wéene liggéeyal maamam ci lislaam ji te nu ànd ko ak moom ci daraja sëriñ Tuubaa yàlla wéral ko te sàkkatanal ko di nuyu mboolem bokki taalibe yi fi teew yépp jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdou Samad Mbay mi fi nekk te tey mu nekk fi Seex Sadio Mbay ci jataay bii ak mbooleem njabootam gépp di nuyu sëriñ Asan Mbay mi nga xam ne moo woote bis bii tey muy bis bu am solo bis bu mat a woote di ko sant bu baax a baax ci taxawaayam ak yitteem ak pas-pasam bi mu def ba mën a dajale mbooloo mu toll nii di woote lu baax li muy woote te woote boo xam ne bii mooy li ñu war a woote mooy sant Sëriñ Tuuba ak euh, fàttaliku Seex Saajay Mbay ak ñaanal ko te loolu di loo xam ne lii nit defut lu ko gën sant dafa bokk ci daraja yi màgg yi nga xam ne nit amut lu ko gën ndax ñàkk sant wala xiyaasu billaahi euh, bàkkaar mën na ko gën a màgg kon kuy sant tegtale na ci kon safaanub sant moom sore gaag moom lool kon li tax ngay sant nag yàlla na yàgg lool rajo Sëñ Tuubaa ah muy bis boo xam ne ah, nun dañuy sant yàlla bu baax a baax ci teewe gi du ko teewe ndax fu ñu sant yàlla ak di sant Sëriñ Tuubaa fàttaliku Cheikh Sadio Mbaye kon ku fa teew say mbir war nga daal dafa jot baax a baax ndax man day Cheikh Sadio fekki wu ko xawma ma ci am lu bari dama koy dégg waaye nag li may dëggale li may dégg ci moom mooy njabootam yi ma gis ak taalibam yi ma gis ñoom ñëpp ñu jaar ci fi ñu war a jaar mel dañu war a mel tegtal na ci ne wala baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi waaye wala si xabusa laa yaxruju illaa nakidaa kon sëñ diw a baax waaye gisoo kenn nam ko mbàyyi ko baax gisoo kenn nam ko yar ko baax dañoo wax lu baax rek waaye mel na war a mel su meloon noonu day am jafe kon Cheikh Sa Dieye noonu sant nañu yàlla baax a baax ci njaboot yi nga xam ne bii xam nañu leen te ak taalibe yi nga xam ne xam nañu leen mosu ci gis kenn koo xam ki wàcc na saatu mustaqim kon yàlla nañ ci yàlla yàggal te saxal leen ci di nuyu itam Baye Cheikh Mbaye di ko yóbbante ci sëriñ Moustapha mbay di ko sant bu baax te di ko gërëm moom day xam nañ ko bu baax muy taalibe sëriñ Tuubaa bu wér a wér muy ko bu wér wér muy ko am ak dogu bu wér a muy ku jàmbur lool ku nangoo jaamu yàlla te am ak kon loolu la ñu xam ci moom. Euh, ban ko xamee ba dëgg day mel ni lay mën ñaar fukki wala fanweer waaye loolu la xam ci moom ba dëgg ni yàlla ko yàlla doole yàggal te mu yàgg liggéeyal Cheikh Sadio bay ba lépp li mu naal ci yoon Cheikh Sadio Mbaye mu àggale ko ak yeneen ak yeneen rajo Sëñ Tuubaa moo tax ko njabootam gépp kon Baye Cheikh duyul lu ko santal ko baax a baax. nuyu nuyu nag mbokk jowaale yëpp yëpp yëpp góor a jigéen mag ak ndaw di siyaare ñëpp di ba ñaan Sëriñ yàlla dolli ah, dajaloo gi mbokk kii àndandoo gi ba ak dolli kattan yi ba lépp li ngeen yéene liggéey Sëriñ Tuubaa ngeen mën koy jib daa wax ji daal mën naa wañ gudd ndax sant rek la sant nag du weer sant na guy suñu xel daal na bu baax a bés bii géej ak koo woote lool lool lool te képp ku fi teew bàkkaar boo fi indi yàlla jéggalu dara ju seen Tuubaa jàngoro joo fi indi yàlla saafara dara ju seen Tuubaa yitu joo fi indi yàlla faj ko dara seen Tuubaa yàlla mën na ko yàlla na ko def waaleykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax jiital nuyoo bi ak ziar bi ci xalifa bi cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàlla guddal fanam yàggal ko fi. di ziare bu baax a baax mboolem njabootug Mamadou Anta Kébé gépp mboolooy rek kep ko xamni ci si askandoo nga wala nga bok ci mamadou mbay ñi ñu ngi lay ziaré bu baax baax ci sa téway ak fo mëna bayiko jital nuyo bi nak ci kilifa ak bi di sunu baye serigne Abdou Samad mbay ñi ngi koy ziaré bu baax di ñaan mbay yalla yalla guddal sa fan ci oyf gi ak baax di ziare bu baax Baye Maram ak mbooleem njabootug maam Cheikh Sadio gi nekk yépp ci baas bi di ziare Serigne Bousso ci taxawaay bu am solo bi ak kàddu yi nga xam ni kenn mën a su cee teg dara xanaa day ndigal rek ñu ko Serigne Baye Cheikh Mbaye waxee ndigal nag dafa am solo te lépp lu nit di def ci àdduna la ci ëpp doole mooy nga jëfe ndigal laa tafaloo an bi xayri idnin fal isnu shartun fi xabulu sha'ani sëñ Assane ñu ngi lay ziare bu baax di ñaan ci barke Cheikh Sadio yi yàlla sunu borom guddal sa fan. lii nga woote muy woote boo xam ni woote bu am doole la bu yaatu woote boo xam ni dara lëllu ko lu dul diine ak islaam lii rek la sëñ Touba bëgg ci dëkkam bii kon képp koo xam ni bokk nga ci zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja al Mustafa tej tahit war nga tak sa ndig jaayante ndax sëriñ bi amul len luñ ko desel ndax leppam ba fa mat jëm ji nga xamni si nak nag tax ñu dajé da ko duppé ñoñu basirou dana ci ñew muy taw mam Cheikh di mam sëriñ bay wëlbatiku nak delloo ci di fàttaliku sëriñ Massamba Mbaye di caatu Cheikh Sadio yi mi nga xam ni lii mu tàmbali ci lii moo ko ci joxoon ndigal mu taxaw ko bu baax a baax mu mel ni tey jii bi nu wàccee kaamil yi ba noppi dem fee ca armeel ya taxaw ci barabu maam Cheikh Sadio yi képp ku fa teew te am dara looy yëg war ngaa xam ni boroom bis bi teew na ci bis bi kon sëñ Assane dañ lay ñaanal suñu borom guddal sa fan euh, wax ci mam Cheikh Sadio nak yomb na yombul ndax dafa bok ci góor yalla yi nga xamni mene su leen xam mukk ndax fess ga mu fess ndax ko xamni bi muy ak Cheikhul Khadim Serigne Touba bobu ñaar fukat ñaar at ñaar la am ci zahir ci ndar jamono boobu wax nañ ni maam Cheikh Sadio yi daana liggéey ay am daax di ci tàgg sayyiduna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ tubaa gis ko laaj dongay ni leen ku bind lii ñu ne ko ku ñuy wax Sadio Mbay mu ne anamu ñu ne ko mi ngi ci dëkk bi mu ne woolu leen ma ko keroog ba mu gisanteeg Sëriñ Tuubaa ñu nuyoo Sëriñ tubaa dafa ne ko ismu ko mu ne ko Sadio Mbay mu ne ko ana nekkoon ba saf yàlla ni ko safee maam Cheikh Sadio mu ne ko looy liggéey ana tur woo mu ne ko xanaa julli ak jàng mu ne ko déedéet Sadio yi fii nëbbutu xaju fi waxal mu indi ko isbillahi al mu ne ko ñaata jamono nga koy def àgg mu ne ko su ma ko defee bis sëriñ tubaat te ca leneen ci suuf muy secret mu ne ko doxalaat ko mu doxal ko ci bis ba àgg keroog la ñëw jox bopp Serigne Touba xam ne moom moom mbir bi. kooku mooy ki nga xam si moo ni moo jaawastu naasi ma fi ay dinaasi wala maa wasaltu ila rabbi naasi ataaniya nafcu naasi sëñ tubaa nee na weesu naa nit ñëpp maa ngi jëm ci yàlla nit ñi bi ma àggee ci yàlla nit ñi jox na ma seen njëriñ fegal ma seen lor jëm jooju di seex Sadio yi sëriñ tubaa xamal ko nag ni ko laata ngay ñëw ci man ñeen fukki at bokk nga ci góor yàlla yi waaye bis bu mu sukkee jébbalu jox boppam sëñ tubaa sëñ tubaa ni ko sa taalibe yëpp ram nga leen laata ngay ñëw ci man keroog bi nga ñëwee ci man kenn nga dese dama la ko ba mu tabbi mu kooku mooy Cheikh Sadio kooku mooy ki nga xam da koo liggéeyal Serigne Touba moo tax rakkam ju baax ja Cheikh Abdou Karim Samba Diarra mi nga xam ne Cheikh Sadio yi jàpp ci loxoom yóbbu ko ci Serigne Touba mu defaral ko rakkam ju baax jooju nga xam ne mooy saaxibul abiyaat Sëñ Touba moo ne ko bu ëllëgee Abdou Karim ngay tudd jëmm jooju nag moo bind abyaat yoo xam ni ma ngi ko tey wax lu wér rahmatullahi ni'mal janaani moom maam Cheikh Abdou Karim Samba jaara mi nga xam ni magam ju baax ja doon na ko wax ni ko sëñ Tuubaa jalaal ji ak fi mu toll ci suñ borom na nga moytu ci loo koy wax ndax loo ko wax rek yàlla fekk ko ci. wax nañ ni jamono boobu nga xam ne si nekk naag moom ci gàmm googu waxoon na ko bu déwénee da nga ànd ak waa Barzak moo tax le 17 1917 la maam Cheikh Abdou Karim Samba Diarra tukki ca leeru boromam. waye biñ ñu koy wax seigne touba nga xamne ne mom lépp ñëw na ci mom fa kullu man sa la wax fa li jawab seigne touba neena ruh du dem mukk tàgguwu man xaadimu rasul waye du ñëw muk man tàgguwu man seigne touba kérok ba mu julle fajar mo taxaw tàggal ko mom seigne touba wa alamu bi anna cheikh abdou karim samba jara iltahara min jiwar rabbihi koku jëm joju moy ki nga xamne kenn xamul lu mu doon mom seigne touba motax neena hafiztu ma sinat abdi tafatiri فلا تكون ان قدمت بفتري بوماي خول سي تيري دوما خام من سيرن توبا ديس ما ييك من خادم الرسول لا شيخ ابن رفال وخون جيم جوجو نك دا فني رحمه الله نعم الجنان يرمل يالا موي لي مو ديف موي اجانا جيغا خامن سي داكو جاغلل كيب كو خامن بو ليغي دنج تابي انت حبي يا ويا كيغا خامن ياي سما سوبي xam nga seigne touba dafa ne yaa kitaabal karimu ant habibi yaay sama soppe Cheikh Abdou Karim Samba Diarra neena seigne touba ant habibi wa ant nurul janani sama leru xol yow ya koy leral yow Cheikhul Khadim Khadimu Rasul qurratu ayni yow yaay ki nga xamel si lumay may xalaat ci sama xol lu neex lo xam dama koy xol di ci am mbekté yow moy Serigne Touba Khadimu Rasul amul len lumay gis ci aduna lu meuna fess fees sama bët. لودول سا جيم يو توبا خادم رسول يا بشارة قلبي سمي بك ولا ما عم ما نيخ دان ماي تودول سيرن توبا واي خمغا خادم رسول نونو لا ملتي سي وحدا واخ نان رسول الله صلى الله عليه وسلم امنا كو مسا نيو جاي اي رسول انكو سي سيرن توبا خادم رسول ba khadim rasul khol ko niko lo jay munuko rasul munuko tegal lepp mu jënd ko ndax sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu alaihi anta baax di yow yaay ki nga xam ni si yaay sama genn wàll genn wàll ci nit nga xam ni kenn ku ci nekk boo dee as gor yaa moom sa bopp waaye sa genn wàll say bokk waaye dafa ni lépp ndax foofu la yow mu ne ko anta nis fii sama li des ci man tamit dama koo jël yow jébbal la ko yow Serigne Touba Xaadimu Rasul anta kulli sama lépp fi sirri ci lu nëbb ak ci lu feeñ yow Serigne Touba Xaadimu Rasul jox naa la ko yaa tabibal atwaani yow yaay safara bepp jangoro yow khadim rasul kep ku wer kep ko xamni tawatu na ci yow su ñewé ci yow nga safara ko anta tabibi kon yow yaay sama docteur bi ka arju ma nga yaakar ci yow dawama kulle zamani diirub jamono yow Serigne Touba khadim rasul ngay docteur bi nga xam ni yaa may faj noonee la ëlbatikuwaat dikkaat ci benen am daax bo xamni da cey taxaw di weler ak ngeureum Momsya Cheikh Abdou Karim Samba Diarra ci ñet la ñuy dikk ak benen bo xamni rakam ju bax ji Cheikh Sa magam ju bax ji jox nako ci ay ci xamal ko niko sama bop ya ko mom tuddu nañ ko fi legi muy seigne Touba limu nu rok yep Cheikh nga xamni bokki bopam yeb ya andak ak mom bok ak mom mam Modou yeb jaayen sax nañ joxe seen bop and ak mom di liggeel tak seen dik mom loolu lako yalla defal yaa xalifa rasulullahi sëriñ tubaa lay wax moom Cheikh Abdou Karim Samba Diala ndax xam ngeen ni sëriñ tubaa moom mooy wuutu sayduna muhammad rasulullahi mool alwaasir kaamil moom moo doon sayduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci bépp sëriñ bi wax na ko yi ni léegi nga xam ne jamono su nekk am na ko yàlla wuyu waaye ba mu wuyoo sëriñ tubaa wuyootul keneen dafa ne ajaaba ni rahmaanu qabla alxalqi sabaina alfa sanatin bilxaq wa yaa imaamu alawliyaa yow yaay ki nga xam ne si mboolem wali yëpp mam Cheikh Abdou Karim Samba Diané ne Serigne Touba Xaadimu rasoul moy sen jitt kon Serigne Touba mo jitt ñëpp wa xutba aqtab rijalullah nee na góor yàlla yi nga xamné ne ag ci ag àgg rijalullah nak du yombul bokay xol ci gor yàlla yu mag yi nga xam dañu ag ci ag kayba da ngay jël ku mel Cheikh Abdoul Khadir Jilani ta xam ngeen ni koku ñaari bammel lam Cheikh Abdoul Khadir Jilani bi mu faatoo wax na ni waa kër ndeyam ak waa kër baayam ku nekk da nga war bëggoon a jël ko xëccoo yaayam moo dugg umul xayri ni ko xam naa la bu baax sa waa kër baay bëgg na ngaa yóbbu su ma sañoon ñu bokk ak man dan lay barkeeloo ma bëggoon nga àttanu ba mu génnee ñu fekk ñaari néew tëdd ci biir kay laani wa jëy laani ku nekk jël benn denc kooku xam nga ni arna mu am martaba ci yàlla waaye sëñ tubaa xaadimu rasul waaye nee na bu ëllëgee kooku ci samay taalibi la ko man sëriñ tubaa xaadimu rasul kon kuy sëñ tubaa du xam moo tax mun ko bi ka bi ka ci yow nag taallaqtu ci laa aju joxe sama bopp jël ko daal koy wër jël lépp jox la yow sëriñ tubaa kon amul lu may kon nak lole bu fekkee dafa am ku dari ci moom daal di jël di bis waaye lu mbir mi luy nëbbu lay doon du lu yomb ndax dafa doon loo xam ni lu kéemaane la ba ci sawuf da koo daal di lël lépp ànd ak moom ci loolu di ko ci liggéey ci guddi ak ci bëccëg yi jaamu yàlla googu nga xam ni moom la saxoo woon ci guddi ak ci bëccëg yi sëñ tubaa ca la nekkoon te sëñ tubaa ci loolu rek doon digle kon li mooy bis mënul tuuti te borom rek lay nu yoru loolee nga xam ni maam Cheikh Abdou Karim Samba Diarra def na ko ak magam yu tedd yooyu sëñ tubaa foofee la tegoon tànkam te loolu la doon digal mag ñi waxna ni ci njaareem mom serigne touba khadim rasoul waxon na mag ni mba du ngeen yak sama der ñu ne ko mbacke de yalla ni yalla musal ci xam diko def mu ne ah am na def ci mbolo mi de mu ne ko ne la mu ni ko xam ni dama lay digal ngay def di la teral ngay bàyyi bo fi jugge nga nekk ci lenen ku mu mën doon fo mën a nekk yaa sama der waye serigne touba neena joge gu sori mo am ak sori gu jege serigne ma nongo dafa ñew ci serigne touba ni ko dama bëgg nga def ma ni sa tak ndeer bi foo jëmati ma ànd ak yow di la lalal sa der bii sëñ Tuubaa ko demal nga nekk ma daaru mar naan te xam ne lee ma delsi bi isni rahman laa tafaaloo shay'an bi xayri isnin fa la isnu shartun fi xabulu sha'ni koo xam ne day topp sama ndigal di bàyyi la may tere loo ma sori sori yaa ma jege koo xam ne doo topp ndigal doo bàyyi tere loo ma jege jegeñ yaa ma sori ne man ak ne fi man bokk na ay pay yéen murid yi fi sa man ku ne ci man man na ci moom te yor ko adduna ak àllaaxira far defar ko ràmm ko sàmm ko ba xëy jëfal ko jox ko njool màkk mu xëy dëkkoo ko ku ne ci man ngir koom yi ak saayir ma jox la yooyu sama baatin del si sëñ xam na lu jëkk li xam lu mujj li xam na li xew lépp temps espace amul ci moom sunu kilifa gu baax gi sëñ ba Basiru léegi sànq rek wax na ci loolu digganteem ak Cheikh sa Yax wax na ni keroog ba mu ko jox xarbee loolu wax ko ko ba mu ko yëkkatee teg ko ci loxoom wax na ni mbooleem àdduna sépp dafa teewandoo ci kanamam. kon loolu dafay wone lu baree baree baree bari kon sëriñ Assane ñu ngi lay ñaanal ci barke maam sa Sadio Samba Diarra li nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal sa maam ju tedd ci. Eh, yalla yokk ba nga yëg ko te ñoom ñoo yoral seen bop eh, ñun nak duñu gan ci kër gi ndax ci lan bok mam ma njéeme mi sunu mam bok ak mam Cheikh sadie Cheikh Abdou Karim Samba jara day ak bay kon bay mustapha yassine mi di seen wajur sama baay daa nekk Louga yor entreprise bu mag ci wàll wàllu menuiserie baay bu soo yaasin fekk nu fa ñu nekk ay gone mu ne sama baay man nan ma génne ma dem jàngi samay mag yëpp nekk di liggéey baay Moustapha Yacine boobu gën nañu nekk xale muy mbir mu kéemaane mu ne ko kii dañ ko génne mu jàng ñu indi ma fii Touba njaxate xuri gii laa wàcce alxuraan ci bàyyi seex jaxate ci kàbbu gay euh, muy mbir moo xam ni ñun mënunoo wax sax ci moom ndax fi mu jaar ak ñun ak li mu def ci ñun kon bis boo xam ne dafa yëkkati mu jëm ci moom ñu ko ciy tudd wala ñu tudd ku bokk ci moom loolu mu mën war nañ ko cee def sunu yitte yëpp war na cee nekk kon dañuy ñaan sunu borom yokkul ay leeram mu nekkoon koo xam ni neexut a xam boo ko gisee soo ko nee jàkk boo amul ndimbal dëgg dëgg dëgg doo mën a jaru ci moom muy ku lewet ku modeste koo xam ne si su neelee kii sax surtout Seex Saa Jéeri dina la yem waaye mu fees dell ak baatin doon koo xam ne mën su ko xam waaye góor yàlla yi noonu la ñu mel kenn mënu leen a xam fii waaye boo ëllëgee kenn leen xam la ñu àndal kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokk leeram euh, di sant ñëpp di leen gërëm ndax xam naa ni ci des yëpp. inshallah allah danañ ko cingkor. ci ngor ndax xamna ni teunk la won rek bo xamni ni dañ koy indi ci jëm ji nga xamni ni mo wote bis bi te mam serigne mi nga xamni si tamit mom lañ ko jox nga xamni dañ ko ci fatiliku mu ñëk fi nekkal Cheikh Sadio koku benen beneen mbir la waye serigne Basiru dana ci dugg ci ngor si kon ñi ngi sant ñepp di leen gërëm di ñaan yalla suñu borom may ñu fekk ko ay deewen yu bari te ñaan Cheikh muntaha mu yag fi lol te wer di ñaanal tamit khalifa bi nga xamni mo fi nek Cheikh Sadio sunu borom wéral ay cëram guddal fanam ba naal bi mu naal sunu borom may ko mu àggale ko. dafa naani kéro ku tew serigne Moustapha lim wax lolu kenn ku nek war na ci baye xel serigne Moustapha dafa wax ni Cheikh abdul Ahad dafa ni dëkk bi di Touba kep ku fi am néeg bu yowmal khiyamé mo lay sérani ya mala timon la tiimoon. tax damaa bëggoon ñu liggéeyal Cheikh Sadio yi jàkka joo xam ci kaw bu ëllëgé da xam xamni moko timon kon mbay yàlla na yàlla guddal fanam kon war nañ cee def lu nu mën ak lu nu mënul ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm. waxoon naa fii daaw wax ko fii daaw jéeg maa ngi koy waxaat ren yal na fekkee wax yi at yu at bari. amiin bay amiin wax mooy sëñ Moustapha mooy sama lépp. Baye Samba mbay mooy porte parole kër gi lu ñu masaa wax ci pap ma tey ba ci pap bàcc ba ci sëñ Moustapha mi moo koy wax man nag man itam Baye Cheikh Mbay nii di taw Cheikh sëñ sëñ Moustapha mooy sama lépp mooy sama làmmiñ sama diggante ak Moustapha lu mu ci wax rek maa ko wax lu bu baax rek ci la ma doon wax it lay mel ni sunu borom da ko dëggal moom dama leen a waxoon ci sama biir wax bëggul lenn soxlawut dara sëriñ bi rek mooy yëgteem te loolu ñu man seere suñu diggante ñun ak moom ndax ci bàyyi seex la jébbal woon muy waajuru sëñ Bas mooy sëtu seex Sadio bu njëkk ci góor yàlla dogal ginnaaw moom ci góor sama waajur moo ci magoon bi bàyyi seex wàccee ba léegi yàgg na ñeent fukki at yi topp na mu ñëwaat ci sama wajur sukk ci mom jébbalu lam waxon bay Cheikh lako wax ku noppé gis sa bay sa taw bay di sa bay tay sama taw bay yaay sama bay yaay sama serigne yaay sama mag ben yon la musa gis señ bi wax mu la ci tontu señ bi da bolé won ñaari doom di maye bi mi wax ben Abdou Samad mi sama rak la dafa tepp niko mbay duma sa sa doom la sa jam la ta ma boobu maa ngi toog loolu nee néew na damu bàyyi wax ko yombul jëmm la ju ju mat a jàpp ku ku wér ak taalibeem la te nag wa maa sayit naa ilaa bi maa alim naa lu ñu wér la ñu wax ci moom kon lu lañuy ñuy war a waxaat ci sëñ bi waxoon nañ ko ci moom moom la ñuy seere loolu ba ñëpp xam ni la ma waxoon rek la doon dëggal jenn jëmm la yoo xam ni ñëpp war nañoo jàngaat ci moom ak taalibe moom jikkoy sëñ Moustapha Bassirou la yor ci kër Cheikh Sadio yi kon nañ ko jox rek mu ñaan lépp rafet na wasalaamualeykum wa rahmatulah. ñaan ci barke sëñ Moustapha. amiin ak ci ndigalam. Mhm. loolu ci ñaan ci barke Cheikh Sadio yal na ko yàlla nangu. amiin donc. مش النبي المصطفى يا الله صل بلا إله إلا له صلاة مون بسلام الله بسر لا إله إلا له إلا توالي في يقود الله إرصاد لا إله إلا له إلا توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا له إلا مكاتب يقود الله أنوار لا إله إلا الله أورثني الكتاب رب الله فضلا ولا إله إلا الله لخنني تنزيل رب الله خطأ ولا إله إلا الله مها مكاره ودر الله خطأ ولا إله إلا الله زب لغير البلايا الله فضلا ولا إله إلا الله لغير ذاتي يسوق الله أكدار لا إله إلا الله لقنني القرآن رب الله قطعا ولا إله إلا الله هدم بنية أزايا الله قطعا ولا إله إلا الله هدى أوايا مع نفس الله بالنور لا إله إلا الله الله نعم الأحد الإله قطعا ولا إله إلا الله الله جل وعلا الإله قطعا ولا إله إلا الله لي خاد ذكر الله رب الله الله أن ولا إله إلا الله بجلني هند هداه الله بالسر لا إله إلا الله شيخ إبرا لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يا رنفال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله برمدقل يا رنفال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله سبحان ربك رب العزة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 wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo leen di nuyu te di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi Serigne Moustapha Mbaye xalifa maam Cheikh Sadio yi yal na yàlla sàmm ko yàlla aar ko di ca teg bokkam yu baax yi nga xam ne ñoo di ay rakkam waaye di nuyu nag sëñ Assane di ko jaajëfal ci jëf ju rëy ji di ko ñaanal sa may ko fan mu gudd ak wér li mu bëgg lépp yàlla àggale ko kon waxtaan wi du yàgg ndax dafa guddi te Ibrahima jaar na fi ba jàll dañoo xër rek bëggal gën a leerlu ci maam yi waaye Ibrahima li mu fi waxan doy na sëkk fan benn xutba rek bu ma defal bëgg a jiital xutba bi rek ci kàllaama yaaram su ma noppee doog a tàmbalee waxtaan ak ñoom bismillahi wa sallallahu ala sayyidina wa muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له من بعده وهو غفور رحيم أما بعد فإن مما ينفتع به أبواب الشمائل وتناثر به سارة رحمته على أعناق عباد التعدس بأشار الأولياء الذي تخوا ملبسهم والإيمان شعارهم أفنوا أعمارهم في سبيل الله طلبا لمرضاته فارين في من سقطه وقد به فأجابهم ربهم بالمنة والمغفرة والإطمئنان أولئك القوم لا يسخى جليسهم مصداقا لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون ومن سابقهم سيخ الجليل صاحب الكرامات الزنية المواهب الربانية سيدي ومولاي الشيخ ساجي بي ابن محمد ابن عبد الله ساجي رضي الله عنهم لقد ترحرع في سلالة الإيمان wa taqwa wa warisal xilm wal mahrifatin min al ajdaasi shurafaa'i min silaalati siddiqi abu bakrin awalu xalifatu rasul sallallahu alayhi wa sallam yi li tënk ci wax jooju mooy yàlla bi mu bindee asamaan du ay taw rek lay wàcce mu nekk yërmande dana wàcce ay nit yàlla ay wëlliyu ñu wàcc ci suuf si di fi wàcce ay yërmande di fi wàcce di defar ay jëmmi doomu aadama di dugal ci seen xol yi ak sell di leen tàggat di jëme ci seen borom ndax doomu aadama bi ko yàlla bindee daf ko bind ngir mu jaamu ko te iblis dafa kàccoor ca doywaar waar sun borom dafa bind ba pare bind juróom-ñaareel bi suuf tënk ca iblis jël ay xeer jal ca kawam waaye teewul rek iblis dana génn def njombe loo xam ne dana yéeme kon faw sun borom wut ay gaay yu baax yi ko mën a contrer di def ci xoli jullit yi ak ngëm yàlla di def ci xoli jullit yi ak leer ban mën a àgg ci seen borom ba li leen seen borom digal ñu mën koy def loolee nag dañ caa am ponkal mu toll ni Cheikh Sadio waaye nag loola nekkul loo xamante ni sii moom dafa jóg rek fétal ko ndax jamono joo gis day am borom kër Amadou Mbuub laa jëkk a fanaan bi may wër àdduna ñu ni mag ki ngay topp ci ginnaawam ci càllal ak tukkuróor lay bokk ci boroom der bu ñuul lay doon nee na may wër sëñ Tuubaa di ko wëranteeg moom di wëranteeg moom ba sëñ Tuubaa saa borom may ko moom it saa boroom xamal ko ni ko am na ku ñuy wax saajay mbay dey boo ko gisee na nga jël lii nga yor teg ko ci loxoom su boobaa ci ngay tàmbali sab liggéey ci la sa xutbaan yi di dugg moom it sëñ Tuubaa yàkkamti koo gis lool ci tënk rek ñu gisee kër askamara bi ñu gisee askamara am na ay wax yuñ waxante bañ àggalee wax ja ci saasi sëñ Tuubaa da ko xamal ni ko fii nëbb dafee jeex saajay mun ko mbax munu ko foo toll sa diggante ak sa borom munu ko day dinaa naaw ci asamaan yi ndax wël yi dafay naaw dinaa jéggi géej gi mun ko naka nga def boo bëggee acc kaaba gi xëcc ko mu dil si nga siyaare delloo ko mun ko munuma loolu day mbàkk sëñ Tuubaa wéq kaaba gi ñu ko jógal nga siyaare kaaba gi bul fàtte ni sëñ Tuubaa dafa wax ni kataballaahu li anna baytillahil haram tarfaatu malaikati ila Touba maa waxyillah kon sëñ Tuubaa moo tënk jamono moo téye lépp fokk bala nga mën a am dara ci yàlla baa nga am benn bunt da ngaa jaar ci moom salimtu min al axdaatu rantimatija li rabbin wa baabullahi lam yurka murtaja dane bi ma yàlla musalee ci samay noon ba noppi dafa jël na bunt yëpp teg ko ci sama loxo kon bari na lu ngeen di dégg ci nit ak coow lu bari àggul fenn fekk yaakaaroo sëñ Tuubaa rek demagoo waaw sëñ Tuubaa la yàlla jël lépp teg ci loxoom sëñ Tuubaa di ko séddale képp ku baaxit te war a dem da ànd ak sëñ Tuubaa mi ndax sëñ Tuubaa lim liggéeyal yàlla liggéeyal ko yonent bi ba yàlla defee dindi beeg léegi kenn du ko mus a toggoo cib coono kenn mus mi nga xam ni moo bind nit ñi yëkkati ruy bindeef yépp teg ci loxom ni ko yow yaa attan ruy yow laa dénkaat ruy yi simaamul wara asri ladallahi fil yati wa ma rumtuhu min malikin xaada bil anni kon damay wax ni képp ku jébbalul sëñ tubaa rek sag ruu moom booy ma xamee ruugu perdi la rek man loolu laa ko mën a considéré ndax sëriñ bi rek a fi ne yàlla mi ko bind moo yëkkati ruy bindee fi teg ci loxom nga gis loolu mu bindal ko boppam te man li ma gis ci taarix amul benn mbindeef wala benn doomu aadama bu mës a bind lu mel noonu amul te yaa ngi koy topp ci ay wax rek nga ko toppe ba ay gént kon sëriñ bi rek lañu war a topp sëriñ bi dong moo mat a topp sëriñ bi tëbb seex yi ci leer yoo xam ni tëbb ko ci ay maqaama yoo xam ni sëñ Tuubaa dong mooy waaja seex yi li daraja ji rëy rëy lépp sëñ Touba la def muy sëriñam sëñ Touba la yaakaar li mu bëgg li am ko ëllëg sëñ Touba la ko jox sëñ Touba mooy léppam ndax sëñ Touba moo lëng lépp. nee na bi ma gisee ak moom waxtaan ak moom ba noppi dafa jël benn ismulaay azam jox ma ne ma ismulaay azam bii kat suñ borom moo ma digal ni ma naa la ko jox waaye dinaa la ci faggul ay mbir li ma la ci faggul mooy képp koo xam ne liggéey nga tur wii da nga doon wëlliyu ci moom ci yoon wi nag bari na ay manaaxib bari na ay waxit waaye dumma nisaami li nisaamil awliya xal li man yaquraa kal awliya wax dëgg yàlla Seex Saaje rek laa gis sëñ Tuubaa defal ko ko waaw ñaan naa sa borom xasida gi ku ko jàng na mel ni nay wëlliyu ci moom rek la wàcc xal defal ma li man yaquraa ndeem jàng kal awliya doon wëlliyu sëñ Tuubaa doo nga laa gis mu defal ko ko kon loola lu ñu war a xam la lu ñu war a sàmm la lu ñu war a góor la sëñ Assane bi nag nekk ca loola di ca góorgóorlu bu baax ñu wax ni daal li gën a wóor mooy nañ nekk ci sëñ Touba te yam ci moom tàmbale ci sëñ Touba cay nekk ci moom ndax sëñ Touba li ko yàlla defal dafa xaj ñëpp da cee xaj cam laabir te woo ñëpp nag yaa ahlal barri yaa ahlal baari ujuudil bari bari saqaay woo naa géej woo naa jéeri ngir lan may géejug texe gi képp ko ko fi bàyyi nag sag texe daa wóoratut kon sëñ Touba moom la yàlla tënk lépp teg ci loxoom nu war a góorgóorlu nu mudi ci nag sàmm ko waaye nii nuy doxale kat bu nu ko defeet sëñ bi deenu mere ndax sëñ bi war nu ko wutal benn ndend waaye nun daa mel ni danoon fee nekkul sëñ bi waru noo tudd kenn ci wetam ji ko tudd ndax lim fi liggéey kenn liggéeyu ko ndax ñu leen woowee ca ndar kat dellu seen kër ñoo wax la leen delloo danoo jubóog tubaab bi wax la nangul tubaab bi rek dellu sëñ tubaab dong moo nangul lislaam teg sart lislaamam lànk te tubaab ba lam tegan mooy képp koo xamante ni sii dikk nga di di sëriñ juróom fukki taalibe nga am droit yor ko tey sa njàngale ma ngay jàngale maa lay saytul njàng ma di la ko teg ci yoon nga mën ko jàng sëñ tubaa ni ko man kenn du ma tënk kenn du ma tënk ci kaw suuf li may jàngale ci suñ boroom lay jóge ma di ko xamal julli ci muy alxuraan al karim kon kenn du ma tënk ci àdduna ñun ko nag kon dana la génn sànke la lii rek mooy coow li colonel mbuub yàlla daa def muy sama xarit sëñ Touba ñu nga naa kan la kelerk mais kan jël jóob lañ ko dugal man dem naa ba kaaf ga ak kaaf la rek waaw as tabax la soo xam ni soo fa demoon ba gis ko sax sa yaram dana daw waaw ndax léppi mbon mbon ak léppi luy luy gaañ nit dañ ko caa def def ca ay rabbu def ca ay ay paaka def ca def ca def ca yu bon yëpp def ca ba dugal sëñ bi ñu koy dugal dañ koo buux nga xay bi ñu ko buuxee ba tëj bunt bi nee na foofu yëpp dafa taag deret waaw nga xam ni soxna jaaraa ko fa feeñu ni ko yow dong la lislaam yaakaar waaw lislaam yow dong la yaakaar ahmadu lii nga nekkee kat coono la waaye muñal melal ni saabatu rasul yi ndax fi mu ne diiney lislaam ci yow la nekk ci réew mi diiney lislaam yaa ko war a taw yaa ko war a àggale fa mu war a jëm nee na bi mu jàllee ma jàng fa saaru baqara ak xam ak ali imran néew bi daal di yaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw bi mu bi mu tegee loxoom ci boppam rek loolu ñu am na tiseet la ko defal nga xam ne yëgatuma wenn métti ci kaw suuf leer gi ko yonent bi tëbb rek nee na yëpp daal di wér fi saase fi ma taxaw nee na ràbb gu ma taxaw rek daa daal di lëmb mel ni wëttéen laa taxaw nee na loolu laa jog gi ba àggale sama liggéey ba sama liggéey àgg yonent bi sallallahu alayhi ni ko ahmadu mun ko mbakke mun ko liggéey bi day doog a door say moroom jëlan nañ liggéey bu toll nii waaye dañ ko mujj waat ci suuf ñenn ñi dañ cee faatu ñenn ñi dañ cee réer ma bëgg nga xam ni lislaam de menn mbër la dese muy yow te yaa nekk ci soowu jant war koo leeral te soow jant lëndëm gi rëy na mu ni ko dama bëgg nga téel ma roogi fit wi ak jom ji dana ko àggale fu ma mën a jëm ci àdduna daal fit bi ak jom ji dana ko àggale moo tax sëriñ bi waruñu koo caaxaane dara am murit warut ñàkk fit am murit warut ñàkk jom war na nanoo gën a góorgóorlu ci sunu bopp man ci lépp ci bépp taxawaayu diine bu ñuy dem rek ñu man ci ca bàyyi pomi pomaa ngi bëgg a bari ci suñu kaw topp yëfi àdduna yi te sëriñ bi loolu taxu koo jóg ni sëriñ bi def ba jot diine jii def ko ba jot dëkkam bii di Tuubaa wax dëgg yàlla war nañ ko cee jàppale war nañ gën a góorgóorlu ci sell wala góorgóorlu sa ca bu dee xam-xama amul benn murit buy jàng ci kaw suuf te sëriñ bi bindal loo mën liggéey sa diine doo ko wuti fenn waaw rayante na moom xaaroo digganteem ak boroomam ba amul ci lenn looy jàng ci lislaam te sëñ Tuubaa bindu ci bind na ci loo doy sët ki la liggéey liggéey bu sell bu toll nii nag la nga def mooy war caa góorgóorlu rek war caa gën a taxaw war a gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla kon loolu laa am lu may wax ci sëriñ bi ñu dugg tuuti ci Cheikh Sadio rek du yàgg daal di jox <laughs> gaa yi ñu daal di lijjanti. Cheikh yi nag sëñ tuubaa bi mu ko wayee yi rek nee na laa daal di dugg ci mëlkoon ak mëlkoon dugg ci xaras yàlla ji nga xam ne sëñ Touba dooleem daa bari daf ko ne Allahu yàlla. kër dana la yéega fi daare ni ci yaari kër yi marxoo baa ngay aji xemmem loo xemmem ci sa borom nee na loo xemamati rek suñu borom dina la ko defal yow Cheikh Sadio hatta tashira ba nga mujj la dal ak waana fa pays yàlla ya mahbuba nga fay ko nu sopp nee na ko foo duggati ci pays yàlla yi rek dana la sopp yow Cheikh Sadio faxlam na nga xam ni bi andi naka man sëñ Touba an ka jëme naa ci yow raadin ay ngërëm soo talabin ci lépp looy sakkoti mun ko ataa tashira ba nga mujj ataa tashira ba nga mujj ilaa sil arsi jëm ci arsi yàlla ja maj suubaa nga fay ku ñuddi kon way wii rek bi ko Seex Saajay déggee nee na ci la nekk ci xutbu lasraar ndax damaa amoon wax ju ma waxan ca wastab ba ca gaa yi di ma ko fàttali ni ma dangaa waxan ni ma damaa laaj sëñ ma Sàmba Mbay ni ko lan nga ma mën a wax ci diggante sëñ Tuubaa ak Seex Saajay ci kéemtaan bu ma mën a wax mu ni ma ànd na ak sëriñ Abdul Ahad Mbakke radiyallahu anhu booba sëñ Amsatu Jaxate mooy dund nee na ma ñëw ba ci moom munu ko kii doomi kan la munu ko kii doomi Seex Saaja la mun ko kii baayam kenn la ci ñu téye woon asamaan te loola dama koy leeral léegi ndax yonent yàlla si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku xam na ni ñeenti saaba la yoroon ñeenti saaba yi kenn ku ci nekk da ngaa am poste boo téye woon moo tax da ngay jàng wal inna al insaana la fi xusri illa alladina wa xamilu salihatin wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bil sabri boo ñëwee ci li alladina amanu kooku Ababacar moo téye poste boobu ñu ni képp ku gëmati yàlla ci kaw suuf sa ngëm dëgër yaa ngi xëcc fil gi ci poste Ababacar Abubakar Saddiq waaw wattawaasaw bil sabri jooju nag ñu ni képp koo xam ni yaa ngi am ina lazina amanu wa xamilu saalihaati képp koo xëy yaa ngi jëf-jëf ju yiw ñu ni yaa ngi ko jëlee ci postub Ousmane ibnu Xafaan wattawaasaw bil xaqi ñu ni képp koo xam ni sa jëf dafa dëggu ca wér yaa ngi koy jëlee ci Omar ibnu Xataab ci postu Quran ñu ni waa bil sabri ñu ni képp koo xam ne yaa ngi ànd ak muñ gu rafet sa digganteeg sa borom yaa ngi koy jëlee ci poste courant wu Ali ibnu Abi Talib ñeent yooyu rek mooy wàcc yontu yàlla Muhammad nekk dynamo bi kon ñeenti ñooñu rek ngay doon naat mën a mën a téye xutbaani bi ñeent ñooñu ñooñu nag ñoo wàccaat ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa doon rasulaay doon gu wér bindal ko boppam shahidallaahu inni waahidun min ahlil badri nee na seedaloo naa yàlla ni kenn laa ci ahlu badar bi dafa dem sax ba man ci sama ci sama deg deg dëgg dëgg dëgg dëgg dafa dem ba takkoog yonent bi ba nga xamni buma ñëmé wone dépasser woon ni dama na dama dama na dépassé ndax ko xamni daf ni la samtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamii al masalii nee na mujj naa yonent bi ak bolem gaay yi yiw yi ca dootuma tàggalikoog moom te ci jamono musuno gis ku bind ni iblis ci bopam moma ba iblis mo tok ni bana seigne touba waaw iblis mi nga xamni mom la ñepp ragal ñepp diko daw lu xew mooma moo toog woo ay gaayam armée bépp ni leen sëñ Tuubaa mee nañ ko moytu te bàyyi ndax yàq gi ñu koy yàqal ñun ci lañ ñu yàqoo waaw waaw kon sëñ Tuubaa moom rek moo fi nekk lu ñu mën a def lu jàpp sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa doo nga fi nekk yàlla nañ yàlla defal jàmm sa borom defal nu tawféex defal nu sutura defal nu xéewal di wax ni nag euh, sëñ euh, sëñ Mbàkke Mbay dafa am lu mu indi fii léegi loo xam ni ñëpp dañ cee war a am ma wax ni jëpp jigéen joo xam ne bëgg wujj na nga jënd ci carte yi rek carte yi daal boo jëndee dootoo am wujj insha allahu taala jëpp góor goo xam ne bëgg nga soxna na nga jënd ci carte yi ka nga bëgg danga ko daal takk léegi ma wax ni képp koo xam ni bëgg nga xéewal yi dul jeex carte yaangi na nga ci jël carte 1000 francs lay jar bismillah am tasaare ko fofu ni jënd ko ndax dafa jëm ci socialu Cheikh sadiay bi waaw lolo dafa bokkan ci waxtaan wi ñu war ci dugg leg nak limay def moy rahmatullah bi lama ma yàggaay ñaan ni ma naa ci firna ko firi rek ta bayyi 912 neena ñew ci pinch mi fekk kër gi fess dal neena kenn ku ci nek di wut lo am ñi ab xiifa leen fi indi ñu ñëw sëñ bi di leen mayub dund nee na ñii feebar sëñ bi di leen ñaanal di leen sifaawu ñii yori masala sëriñ bi di leen tungoom ci masala yi ñuy dem ñii di tëbb si ci moom mu leen di yégal ci seen boroom nee na ma xool nit ñi ni ñuy def ci sëñ Tuubaa ak sëñ Tuubaa li muy daj nee na ma daw kar ko ne ko rahmatullahi yaa naimul jinaani yaay yërmandey suñ borom jim nu waxan ci ajjana yaay bànneexub ajjana anta xibbi wa anta nuurul jinaani munuko yaay sama soppe yaay leeru aljana gis nga aljana amuti làmp aljana jaamu yalla fay leral way neena cheikh seigne touba mi moy leer ga fay leral khuratul xay ya busharatul xal kon defna la ngay sama mbégum xol defna la ngay sama mbégum xel anta tibul fuadi defna la ngay sama dalu xol anta bax di ma def la ngay sama lenn wa anta nif si def la sama genn wàll wa julli ma def la sama boole anta kulli yaay sama lépp fii sirri ci lu nëpp wa axlaani ak lu feeñ yaa tabibul atwaa yi nee na ko jàngaro ju ma am sëñ Tuubaa laa koy jàmbat ndax moo koy faj anta bi ka ci yow arju laa yaakaare dawaa an paj kullu samaani diirub jamono yaa sururul xulu bi nee na xol yi sëñ tubaa doo nga leen mën a bégal sëñ Tuubaa mooy mbégum xol yi anta sururi yaa may bigal bi ka ci yow axyaa lay dunde bi sikkiri ci tudd la kullu makkaanin bépp place yaa xayaatal axyaa yi muy dund gi nga xam ne moom laay dund dëgg-dëgg sëñ tubaa ma ko mën a dundal anta xayaati yaa may dundal anta ruuxi yaay sama ruu fii naf ci sama bakkan wa jusmaani ak sama yàpp yaram anta sirru wa sirru sirri fa dum lii fel xayaati ilaa doxalul jinaani bi mu waxee lii sëñ tubaa nag sëñ tubaa daa jóg dox ñetti jéego daat ni sumeet mbubbam solol ko nee bima solo mbumi solee mbubb mi nee ci àdduna bépp mang koy deg nee bima solo mbumi aduna mi ngi melni ab jaaro sama lox loxo xambe na lépp ci aduna ci la ni saraaxa biir aljana ma ne ko yaa xaadima rasul hubbuka dini anta habdu rahma rahimi wa rahmani yaay ki am yërmande te ñewante ñep ya khadim rasul ya khadim nabi assalamu alaykum nuyo baangi dogu a jot wa tahiyatu lillahi bi ridwaani nee ma ngi lay nuyu nuyo nuyo bu joge ci sun borom ak i dila geureum geureum lu wér dila wax ni nanga dal ta tek ta nek ci alxuraanal karim gi nga xamni moy Touba yalla nang fa dal ak jam kon seigne Touba mam Cheikh Samba jaara nee bima ma def moko ko defee ba nuppi daf ma xecc bima ma rek nee daf ma fipp bima ma fippoo ma rek nee dama tab ci aljana nee xamé samay soxna xamé sama lepp nee na ma ñëw fekk leen ñu toog ma nuyu leen ñun ma yow yaa Abdou Karim Samba Diarra Mbaye yow day ca àdduna sàmba jaara nga tuddoon waaye fii ci àll fii ci àjjana yaa ngi tudd Abdul Karim nee na ma gis ñu décoré mbir yëpp Abdul Karim nee na ma sax fa ab diir wàccaat ci suuf ñëw ni sëñ Touba sëñ Touba ni ma bu déwénee yaay gàmmooli waa àjjana kon sëñ Touba ñun mënuñu ko mënuñu ko fay nun ndax moo wan suñu maam àjjana sëñ Cheikh Sadio mii moo ko tëbb def ko ci góor yàlla yi kon nun lu ñu def lu dul yaakaar sëñ Touba ak bëgg sëñ Touba ak jàpp sëñ Touba defuñu la war kon sëñ Assane lii nga def yàlla na la yàlla fay yàlla na la sa borom sàmm yàlla na la yàlla taxawu ndax lii dafay coono. toggoo sa alal jël sa alal def ci toggoo ci ay coono ngir lan yëkkati Cheikh ahmed Bamba waye dako jar nifali wa ibkha'i wa fawsi bila hana waye wa kawni qaddiman mustafa tatabayanu kon nak tatabayanu ji ko lépp ci dugg ndax seigne touba mom ku ko siiwalu day siiw nee fu la ilaha illallah Muhammad rasulullah dem jere jërëjëfe seigne touba day dem ci wet ga ndax loola luma sa borom may la lu yontu may la wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal ju'a wal wabaa كما تلين من أبائبا تزيد عقلا وترد دررا هما يلازم وتكفي خررا تيسير العسير تكسير السواب في كل بائه والتفديل سواب تقول من لا سما للخير كما تنجي من جميع دير تفتح أبواب الجنان تكرم جناب من يقرأ فيكرم تجود بصفاء من كل مراد كما لخاره تجود بالخراب تدفع كيد الكائدين تنمي خاريا خير الجزاء وخنمي تكسر خيرات الدور تردي من رام أن يسلم حسب الفرد تقود من يقروا للمنيا وللولا تخرج من مريا تلجم أفواب سوي الإفساد وتعصم المبيح من كجادي تنير قلب كل سلاعي تنيلو تنيل أجرم الفلاح من يبلو لعاجة تخلد بلا شك ومن لم يتلها لم يخبلا ومن تلاها مخلصا لوجه من أن سلا فاس بأجر وأمر ومن بيا دخل في أمر فلا يكون خائبا ولا منسفلا ومن بيا رام عسيسا له من مطلق أبدا لجماله ومن تلاها في الجبال يجري عند كريم محدق لم يحجري ومن تلاها وهو سوء نالردا رضا من جاد بالبحي صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والأمد صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والعمري من جعل القرآن هنا أنسلا من لوقه في يد روح النسلا من جعل القرآن حين أنسلا من لوحه في يد روح نسلا صلى وسلم عليه مع الجميل وكان لي بفضله عيس أميل صلاة علي ما بها المصطفى وسابي وكل من على استفاء صلى وسلم على الجميع خير سكور رافع جميعي وأفضل الصلاة ما خير السلام عليهما ما أفاد من كلام وأفضل الصلاة ما خير السلام عليهما ما أفاد من كلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين bila dera màggal suñu Tuubaa da ngay jóg taxaw ca kaw màggal Cheikh Sadio jar na ko jóg leen taxaw ca kaw màggal Cheikh Sadio jar na ko jóg leen taxaw ca kaw may wasgul xëyla amad gala lama lawa mi soppu Cheikh Sadio may الإنسان عن الجلال عافية أنا حسن براي أنا عليك صفت قصادي ميسوسة في جوع راد مليان أخبر ما فاضل يا صاجيم أتوسي صاجيم أنا شف صاجيم جمبر جاء يا يا لدن إلى رمت تزقنا جاء تنزق زواجنا تنزق زواجنا toogaay jeex na ku yaakaar Cheikh Sadio jugal taxaw ca kaw màggal Cheikh Sadio bàyyiwuma kenn na ñëpp jug taxaw ca kaw màggal Cheikh Sadio jar na ko. sëñ bi ci jaatu fi xisaagi بعد بيت الزبزاج ميزا وسلام nan laa mu ëddee Cheikh Sadio Mbaye ñëw jox ko sëñ Mor Sène eh, eh, eh, yan naa ko ko jox yan nañ ko bërile barke borom Touba sigin bacci maya bawa catum ketu zaaji zaaji gi waalo sunu zikr zaaje sunu zikr zaaje be no zikr zaaje be ni zaazana yalla fi yago yalla fi yago

على خير الورى ولا لواسبي وكل نورا ولياب في كل سائل ما وداك والتغاب رفعه يا ربنا بسورة المعاني وجيل خير درر الملعاني يا ربنا هب لي اخ الكوثر يمنى الرايات وأجور كسري يا ربنا وجه لخير الكافرين بلا مدرة بآخ الكافرون وارث يا بدي وأنت الباخي لك الورادي سبوك تباخي سلي بتسليم هلا سيدنا محمد بنا مرشدنا وعلي وصبيعي وجلورف لا نمل الخيرات من خير الصروف وجعل به زان اسمك الخيرات جميعا يا مبخي الميرات بسورة النثر وتابر كفا أفيضة العذاد وعلى كفا إلى سوى نبي وبالخلاص جليل الجنة بالإخلاص راسد يا صابر علي السلام ولا الذي فاهم سن الكلام سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا محمد والآل وصحبي عيف الآل والمال سيدنا محمد والآل والسحب عفرالي والمآلي وتكفينا في أخي سورة الفلق وسورة الناجل أسايا من غلق واكتب له سلام اللي يبي السلام في آله وسبعه باغي السلام واكتب له سلام علي بالسلام يا لك وسبي باغي السلام بكل عارف من تخير وروفي بسارة للموب بلا معروف بكل غرف من تقيل غرافي بسارة للموب بلا معروف يا من سؤال خير عين بدلال إذ كنت لي بكرم من ياس الجلال يا الله يا يا مجيب زلي على التي بعيد تجيب سيدنا سيدنا سيدنا Sayonara! Sayonara! Sayonara! Sayonara! Sayonara! Sayonara! Sayonara! Sayonara! Sayonara! Sayyidina, Sayyidina, محمد الولاد وصحبه في الآل والمال سيدنا في المعجزات بالسلام بلال وصبي مزسع السلام وكل يا وكل وكن معي وكن لسائخا فوق مرامي بكل وكل يا دار وكن معي وكن لي فوق مرامي بكن وكل يا دار وكن معي وكن لي فوق مرامي بكن wajal bi jaaye hayaati saafiya laka bihi ma ujurin daafiya waliyun nabiyun للبرايا رسول من بي لسوى نزا خزا سلم وسروي ولي نبي للبرايا رسول من بيل سوى نزا خزا سلم وسروي ودادي لربي وال وخفا ويزبي ومن أبو ولا ولي كان بنفي فسخت في باغ سبت عبد الله بي قديما لخير الخلق بالمس والصغير هرم رداما كل يا رغيم ربي بما يزرعون أسانا قد فجاء بجاي أفضل من لله خلجا حملي لربي الكريم لا شريك له والصدر اليوم نورا صحاتي الملأ محمد محمد صلوات الله في أبد اللي في اسمي كل بكلا الرجل الذي أمن مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برا نادجا جل وعمل كرمني تريم عاد وكن ريم لخان بريا رامان حب جميل خلق رامة من يوني علي سر من قرآن أخرى هرومة مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى كسب يا رسول الله رمضان رمضان رمضان مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى يا رسول الله رحمنا مصطفى مصطفى سيدنا محمد جمة المصطفى عن كل مفسدة وترى من خلق يا منشدهم بلا يا مالك الملك يا يلا يا بوري بوري يا مالك الملك يا من جل عن غمد إلى جميع الورى هاديا ردا ويلا يا برم يرمنا ارحم جميع الورى يا دي الردى فرسان واي برم يرمنا am jamiyal wara borom jàppandal yaa diyan rada sëri saali waa waay borom nane am jamiyal wara borom la gan يا غادي الردى سيساني واي آه، ارحم جميع الورى برم خيركم جاقة يا غادي الردى سلطاني واي برمينا الحم جميع الورى برم أم الخرى يا هادي الردى يا مالك ال يا من جل عن مالك لم جميع الورى يا هادي يا انردى ما ودما خلنا والقلب من درر بجاي الظلمان لله خلجا هذا ما خنا والقلب من درر بجاي أفضل من لله خلجا القدماء خلاء والقلب من درر بشيء عفد مال لله خد لجاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله والحمد لله الحمد لله والحمد لله رب العالمين رب العالمين شيخ محمد الفضل Cheikh Mouhamadou Fadilou Serigne Fall Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké Cheikh Mouhamadou Fadilou waay Fall di Fall tey jii ku ko neex mu fal la ngay fale keeway saayewal kumalla الفرايل ما لم يبيان غفران وارد يبيان ci wàllu gune soo daanam bi daanam fore yi nari sëriñ Fallu maam sarif la sëriñ bon bon sare bon sare bon bun sëri bun bun bun sëri bun sëri bun bun sëri bun bun bun sëri tuuma jum la woona saatin sëriñ Fallu lu tas yaaga ko ko كل هاج مميلا هديا سليف خلي يلح أنا وهو مختار ما لك هوي حسين خنال فدي فديامهم في ميمة لا لولاك سفلون falila فضل الباك المصابين كما جيت ما وصل انا من خاني با وانت ترجع خبرن كل صف ترجعنا كل صف ترجعنا كل صف ترجعنا كل صف ترجعنا كل صف فلنا كل صف فلنا كل صف اهدنا كل صف اهدنا كل صف اهدنا

waaye fanduma ba bu wér sirif nga yaa jiite allu galgaa ngi nii teer su ma ba tar de yaa xam ne yëkk dugg ci gaalu sëriñ bi waaye baal naa gale laa këpp ci inni fannilu tukkala ma gal ko tukkala nga rag sama nga mbooloo mi ko sopp sëriñ Fallu jógal taxaw ca kaw ñu màggal sëriñ Fallu ku jug màggal Fallu yàlla ngaam am jàmm barke sëriñ Fallu sopp sëriñ Fallu jugal màggal ko ku topp tuuti ñu fali la ñu màggal ko ñu fal ko nu nga daw rawata mas gaawa bu sëriñ fali la sëriñ fali la waaw sama ku dundum be kaa fay ñu bàyyi teew gaawa ci jaar ma dundum be kaa Ousmane borom gaawaan irijaal murtee ma dundum be xaabal ak cerno bàyyi ca Ousmane ak faal borom gaawaan irijaal murtee xaal dundum be xaabal al ca Ousmane borom gaawaan irijaal murtee borom gaawal bii di jël moo leen seen waxal. Abdou Fall borom gaawal bii di jël. Cheikh Sadiaye Mbaye. Abdou Fall borom gaawal bii di jël moo leen seen waxal. Abdou Fall borom gaawal bii di jël moo leen seen waxal. Abdou Fall borom gaawal bii di jël moo leen seen waxal. Abdou Fall borom gaawal bii di jël. Cheikh Sadiaye Mbaye. borom gaawaan kii di jël mu ne jeexal. Lampu Faal borom gaawaan kii di jël mu ne jeexal. Lampu Faal borom gaawaan kii di jël mu ne jeexal. Lampu Faal borom gaawaan ku sopp Seex Sadio Mbaye. Lampu Faal borom gaawaan kii di jël mu ne jeexal. Lampu Faal borom gaawaan kii di jël mu ne jeexal. Allah ta'ala. Al-Hijaab. idan sunan ya لا تأبى أما ليلى الإجابة أما ليلى تأبى ضد الصنايا لا تأبى الإجابة يوم الكعبة ضد الله تعابى رب ليلى بالإجابة رب ليلى هم الكرامة إذا الثنايا الله تعابى بالإجابة هم الكرامة إلى الثنايا نعم الرجال رب ليلى الرجال رب ليلى لا اختل حنائيا يا رجال சுபி يومنا ندعي تبي أما ليلة أما ليلة أما القصة يوما الهداية يا سمية ba bi xayri Bamba laylala bagi dayre Bamba laylala i baqi mayna awigiti dayala bi xayre arba bi dayra i baqi mayna sokunjo makka ta loxo ca kaw kullul tujaa Bamba laylala watiba Bamba laylala watiba اختر ربايا من كل شجاع بابا ليلى بابا ليلى واتفاق واختر رفايا قلوب الدعوة لكما بابا ليلى لكما بابا ليلى إذا ما توقي لختي بايا ما كما جرمتها بالاتباع البئم أفوت وما جفوت قبل إلى بيت تنبتي لا يا جدي غايا ودايرة كتب جل مكة الوقت كم فوات أم ليلة في أم ليلة بدل همتي غايا تنشران أما ليلة متفق لي أما ليلة أخيرا وهي أجيب دوينا كنت تحاول تكون مدل في أخساني بي يلا nga dajé mom ëlëk yomal xiyam du ngeen taxaw ci kaw jaayu magal cheikh sadi jar nako ya tan jena baba layla ta'ala baba layla ajib tu gaya tan jena والي لا غير والي أي دعاء إن مئة الجنان المتغالي غير والي أجيب دعايا الجلالي المتغالي يا خير والي أجيب دعايا على تدي وسلم على المكلم اذكر ياتي وسنوي خيا وسلم على المكلم صلي وسلم لا اله الا الله المكلم لا اله الا الله وذريته وسنوي خيا صلي وسلم تعال صلي وسلم لا اله الا الله المكلم لا اله الا الله صدر يا شيخ وسلم صلي وسلم إلى الرجول بعد الجل إلى الجل الرجال على الجل باب الجل الجل لدواما لدواما لدواما لوابنا يا لما وبنا لأنك لدواما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما دوابنا إلا لدواما كتب جمع كتلوك جمع لدواما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما دوابنا إلا لدواما فادا لا إله إلا الله فادا لا إله إلا الله فلدانا بختنا يا وعلرانا سوف تخسى جاي مي بل شيخ مختار مي تأنا نلحتدي غادا لا إله إلا الله فادا لا إله إلا الله فلدانا بختنا يا وعلرانا Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya I'm gonna die. فوق لدينا كل بجود جود جود فغردا الا ابي ودادا ابي مرادا نفادا ابي دكرايا Kira لكل رايا برورا برورا برورا لكل رايا نذكر خلام لا اله الا الله كلام لا اله الا الله قدمت لنا اذكر كلامي لم كلامي إلى منامي ولم كلا من قدد ديكاني جناني أكلون دعينا في أماني وكد براعي سريزالي سريزالي سريزالي Saaliw Sëriñ Saaliw Sëriñ Saaliw jannatu ma ti ti saane Seexi Saaliw ni janaane rakkelu la doylo maane masjid baraya Sëriñ Saaliw Bañu na ko bi nanu tëdd di diitaani seeru saaliw ay janaani Mbàkke loola doyloo ne xasid baraa'iya kadil saaliw ay janaani sami amaane wasid baraa'iya nanu tëdd doyla seeru saaliw ay tamayla Mbàkke loola doyloo di man ñu raa'iya maa ngi ñaan ku jóg taxaw te ko màggal Serigne Saliou yàlla nga tàggoog bàkkaar دوغلن تاخو تي كو ماغ سيرين سالي بروم جام ماك جامونو لا تا تا تا دايلا يا ريزالي و تا مايلا ما كانو لا دايلا دا دي من يورا يا دا دايلا يا ريزالي و تا مايلا ما كانو لا دايلا خدي خدي سرايا كتابا كتابا كتابا يا ستيرايا كتابا الكتاب والمتابة يا الذي لا قيد ربي يا غزال يا قيد ربي يا غزال يا قيد ربي يا غزال يا قيد ربي يا غزال يا قيد ربي يا غزال يا قيد ربي يا غزال يا قيد ربي يا غزال يا قيد ربي يا غزال يا قيد ربي يا غزال يا قيد ربي يا قيد ربي جيتي دايا انا ربي تيمو ربي دايا ربي بدني دا نمتدي مدن شيخي زاي المتمم لكن ربي كل هاتين بلمتي غايا المدلل المتمم وكل يا دم بالاندواء من تدين سني على المتم بكلو لدويلو ننتي غايا على المتم وكل يا دم

bam turunam fal sabige bamba turunam fal sabige bamba param binam fal rijalu bambay fal turunam fal sabige bamba la ca loxo ca kaw dew góor yóbb dalu bama ay ngebige ko bama ngebige ko bama ko joko pass rijalu bambay fall ku bay fall dugal taxaw sa ko màggal Cheikh Ibra ko màggal maam Cheikh رجال بما رب لا يأمم من سبيل أمم برنقا سبيل أمم كلهم قد يخبات رجال بما رفال لا يأمم يا يا مروا رجال رجال بما رجال بما تفلم تجدين sëñ Fallou Mbacké ki gindi sëñ Fallou Mbacké dara saa yu bëre xamal na de réew mi ci Fallou na ci biir lee Fallou tin Fallou tin Fallou tin Fallou tin Fallou tin Fallou dina xamal na réew mi sëñ Fallou moo ci dindi sëñ Fallou Mbacké ci dindi sëñ Fallou Mbacké dara saa yu bëre xamal na de réew mi na ci biir lee ci dindi lee mu gindi la te Fallou ku jooy mu nax la ku mer mu muñ la ku am xorom la jamono mi réew mi sëñ Fallou ku jooy la ku muñ la ku am xorom la jàmmal na réew mi. sëñ Fallou ku jooy mu noq la. sëñ Fallou Mbacke ku mer muñ la. sëñ Fallou Mbacke karam karam la jàmmal na réew mi sëñ Fallou. ku jooy mu man yi soppeem ñëpp a ngoogu sëriñ Fallou na ñëpp jug taxaw ca ko màggal sëñ Fallou. di leen taxaw ca ko màggal sëñ Fallou jar na ko. kuy mu nax la ku mer mu muñ la ku am xorom la jamono nu réew mi sëñ Balu ku jooy mu nax la ku mer mu muñ la ku am xorom la jamono réew mi ku mer mu nax la sëñ Balu ku mer mu muñ la xaram la te mën a réew mi sëñ Fall ku jooy mu nax la ku mer mu muñ la xorom la jamal na réew mi jumaa ji mat na jumaa bi ñëw na jumaa ji mat na jumaa bi ñëw na jumaa bi ñëw na teg ni wal naw Tuubaa di réew mi sëñ Fall ñëw na sa doom ñëwal na Tuubaa di réew mi jumaa ji mat na jumaa ji courant bi ñëw na courant bi ñëw na ñëwal na Tuubaa di réew mi jumaa ji mat na courant bi na te ndox na Tuubaa di na courant bi na jumaa ji mat na. jumaa ji mat na courant bi ñëw na. courant bi ñëw na. ndox mi war na. Tuubaa di réew mi. jumaa ji mat na. courant bi ñëw na. ndox mi war na. jumaa ji mat na courant bi ñëw na ndox mi wal na Tuubaa di réew mi Sëñ Fallu jumaa ji mat na Sëñ Fallu Sëñ Fallu Sëñ Fallu Sëñ Fallu Sëñ Fallu jumaa ji mat na courant bi ñëw na te ndox mi wal na Tuubaa di réew mi jumaa ji mat na bi yàlla. ndox mi walla. Touba di réew mi. Touba di réew mi te ndox mi walla. Touba di réew mi. Touba di réew mi te ndox mi walla. Touba di réew mi. Touba di réew mi te ndox mi walla. Touba di réew mi. Touba di réew mi te ndox mi walla. Touba. di réew mi te ndox mi wal na Touba di réew mi Touba Touba di réew mi te ndox mi wal na Touba di réew mi Touba ku sopp Seydina Muhammad jëli Madina لا لا لا يا دار دار أخواتي من قبأت كوني لا إقادم أكون وليا يوم أتبي وتيجيني عبد كوني عبد الله لا إقادم أكون وليا أتبي كوني لا إقادم Adri wati mayre abanu kaanila hanimo adanwa liya umal adri wati jinai aqbal ala layla kafani biki makad urdi mayre abanu kaanila الله والجيل من يمن يكون تاب لا يسمى المراد ودي نرنا يغاجي نوالي بدون ملك بلغين نور دمي يا سماك حبوت ديب لا لا لا كمان بتبني كل عين كل من وين دور الغم يا سمره تقام ilaha illallah la ilaha illallah يقول أريد العين تقابل وجهي وجه ما يرزقني يقول أريد تقابل لا إله إلا الله لا إله إلا الله تقابل وجهي I do حسن إذا الغرام ليلى الله تلك مزرعنا تقام أنت المجيب لا إله إلا الله أسوأ الغرام لا إله إلا الله إنك منعنا تقام الوزير يا رزقوري يا رحمن أجيب لا إله إلا الله أتيت منك لا إله إلا الله وبالغيب الإنسان منك منوانا كل من وانا Yeah. soppay maam Seex Sadio Mbay bay tijji jaamu ji Mustafa Mbay ba li tijji jaamu ji Seex Sadio Mbay li tijji jaamu ji duñ jooy naa sunu sang ba saaliw alxuraan de jooy ani lay jooy naa wakkaana xam di jooy naa borom jamono jëmi sëriñ saaliw malakanil maliku wal maliko مالك التي لا تبيك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والمدني في رمضان نجدا أجر الذي وعنده لا ينفض والسلل وما اخترى حلم فد خدمة خير العالمين أمرا عليت دماء كريم يوم يضاك سر توبا إرحام جميع يا رمال أكبر الورى ببلغ دنيا نانونا بالويزا تي سيخنا سيخنا خمول بي كندو في دس لا بنوغا bëggum doon yaatu na balaysa ci Seexuna Sëriñ Saaliw kuy ndaw jógal ñu sant nanu maa si jug taxaw kaw sant Serigne Saliou jug leen taxaw kaw wax jërëjëfati Serigne Saliou. te jooy ko ndax moo nu defar bu dul woon la yàlla wax ca Alxuraan kon leenu jooy ba fekki ko subhaanu li ma ca yàlla yàlla ci coobareem jëlay jëf jëf na ba yóbbu sang ba balay sa say xonaat sëriñ Saaliw adduna yaa yaa nga nu war nga sa bopp baayu sëriñ Cheikh samaan ba dem naa ci yàlla adduna yaa yaa adduna yaa yaa mën a war war nga nu war nga sa baayu sëriñ Moustapha Saliou borom jamono na jëlul xadim de dem na aatana yaa yaa mana war war ganu war nga sabab Cheikh Sidi Makhtar borom juróom-ñaari sooroor jàmbaar ja dem na aduna yaa mën a war war nga na war nga sabab Cheikh Sidi Makhtar borom juróom-ñaari sooroor jàmbaar ja dem na la Seex Bamba Bamba Bamba Bamba Bamba Amadou Bamba suñu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp daa bay maam sëñ bu Njaay sëriñ maam Cheikh Saajay bay borom gàndi gaale ngoro Bamba la Cheikh Bamba borom baaba maar sëriñ maam sa saajay mbay baayu maam sëriñ mbay baayu Seex Madu Laamin mbay baayu Seex Basiiru mbay baayu sëriñ Mbakke mbay baayu Seex Madu Taayir mbay baayu Seex Masamba mbay maami sëriñ Mustafa mbay yàlla na fi yàgg te wér Seex Amadu Bamba looloo ci gis kanam ganaat tey sooy xonaa sëriñ Saaliw bu ma yem yem leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax waxana la munta wax soo ma tijjee may la ma ñam Cheikh Abdou Karim Samba Diarra may nee na bu leen may yem ko ndax lu man di wax mooy ki di wax waxana wunte di wax sama tijee may la meñam ma samba jaara ma gërëm sama sëriñ danaa xorom woy ma woy ci waa këram ñoo sa xorom te am gërëm Samba Jaar Samba Jaar maagaram ku sopp Seex Abdou Karim Samba Jaar mbay rakki maam Seex Saa Jaay Mbay sëriñana xorom way ma way ci waa këram ñoo saf xorom te am gërëm fi wilaaya la ma woon dindi la woon wàccam ña woon ma gisaa la ma daxaar saani daawaama waa jidda saalaama wa sukuru xiiraama Cheikh Sadio Mbaye na ñëpp jug taxaw te kaw jaayu màggal Cheikh Sadio jar na ko. وشيخ صدي باي وباتي باي آه، وباتي مامي شيخ مصطفى باي بيزادانا حق في الدنيا مسام ما يفيد jay bay fi saxaanaay Mustafa ku soppali borom Porokhane kenn du mel ni Maam Jaara ku soppali borom Porokhane kenn du mel ni Maam Jaara ku soppali borom Porokhane kenn du mel ni Maam Jaara ku soppali borom Porokhane kenn du mel ni Maam Jaara ci julli te jàppul ku soppali wal këram buubal laa ilaaha illallaah mbooloo mi asamaan seet ku bëgg a dem boroxaan jugal taxaw ca kaw soxna Jaaratullaahi jar na ko jugleen te julli te jàppul salaam julli te wérdul baraay dangam tuubal dal di wal këram buubal ay dëkkandoo jara bu sa baay ak jigéen ba ay mbokkam dana am tama maaram bambay jaman bambay dambatin ko waran ulim gaba moo waral moo di lu xaaral. kooku dikk na. léebal taala am sa dem rooti. yow yooyu xëy ci tool ya. soxna jaara moo sellal. kooku dikk na léebal taala am sa dem rooti. yow yooyu xëy ci tool ya. soxna jaara moo sellal. donc yaa ko daan. doo dëgg la ne ko wane. doo dëgg la lu fal Sëriñ Tuubaa ko jëfal ba muy naaram.

soxna jaara yaa ba nuge angolal munawala yëkkatu mi kenn aku gantu bay banawal soxna jaara yaa ba nuge angolal munawala yëkkatu mi kenn aku gantu bay banawal yëkkatu fi kenn guma aku gantu bay banawal yëkkatu mi kenn guma aku gantu bay banawal yëkkatu fi kenn guma aku gantu bay banawal yëkkatu mi kenn guma kenn ku mar man xiyaam yaa may danalee samay reer kon loolu doy na sëkk waaye nee moom da cee bokk jot ndigal ci ay kilifaam ak mu jot mu def tànt bii di ko barkeeloo ci Cheikh Sadio Mbaye ne lii la waaye nee na amu fi kàddu amu lu wax waaye nee nag dina sant ay waajuram ñi nga xam ne ñoo ko may doole olof njaay dee lim ni peccum liir bu neexee nday jaay téye ca wagg ya liir bi mënta fecc liir bu ko dee tëgal muy ree yaay jaa kon fa tarakallaahu lépp nag nee na ay waajuruma nee na mi ngi ñaanal waajuru mu góor ñibbi àjjana tëdd fii ci armeel yi ci sura yal na yàlla xare ko àjjana ci barke Seexul Xadim wana la ko Seex Sañay Mbay di ñaanal waajuru mi jigéen yi toog suñu xol seen na guy def ngeen délégation bàyyi ko dugg di ko teew ànd ak moom bàyyi seex a di taw baayam ma sëkk li mu doon am kàddu mën a wax te tanti bi bu ko neexan léegi léegi léegi mu ne mu nekkoon asan jàngi kat Touba neex na waaye fekk ma Louga sëñ Asan ne waxul ko waaye bu noon saara daawa sama fekk ko saara daawa ba póotu loolu lépp baatum digal la fatarakalaahu waxul suñu sombee jiwàll fa ne da ko jëlale waaye ne suñ bàyyi sëñ bàyyi seex mi rek yi de bëgg naa nga ni ko Louga ca kër ga fan fekk baax nee na wallahi jàngi ku ku bëgg a xamante jàng yi da dem Louga kon ne mi ngi sant ñoon di leen gërëm di leen ñaanal seenu fan yàlla gudd ci barka Cheikh Sa Dieye Mbaye nee na ngi sant dëkkandoo yi soppe yi xarit yi wala day daayira yi daayira soppal Cheikh Sadio Mbaye ñu ngi ne toog daayira maam jaara soxna Ami Ñaan ngay jiite ko daayira soxna Ndaa Gueye soppal soxna Fadal Mbakke ak ngóolam daayira soxna Adama Kese ñoom soxna Adama Gueye ak kër yëpp sëriñ bi nee na li mu taamu ci yéen ba dëkk ak yéen rëccu ko nee na Baye Cheikh mi ngi lay seere nga seere sëriñ bi ni ko moom day mi ngi sant yàlla ndax bi mu jógee Louga day dafa amaat yaakaar ci Sëriñ Bamba Xaadimu Rasuul waaye yaakaar jooju Cheikh Sadio am ci sëñ Bamba ba ñëw ci sëñ Bamba lam ci seexul xandim takk mu bàyyi ko Louga ñëw waaye yaakaar ja tasul ne ñi fi fekk day matan sëkk ay dëkkandoo matan sëkk ay dendandoo matan sëkk ay àndandoo nee na duñ ko gërëmal duñ ko réeral ti sànnu ko ci dara bis bi bu dikkee nee na duñ ko bëgg nangu ci loxoom ñoom soo ñëw ko soññ naa ko suñu asan bis bi kañ la bi ko jàppee le 22 mars ngir bëgg mu safa man cee yaatu ne ñeeñu ne ko ah mbàkke bis bi so sëñ bay sëñ bay bis na de da nga ko war a ndax na mu ñaagi mi ak na mu jataay bi kon ne mi ngi lay séréné ne koñ amul seenu pay xana am ak ñaan ci barke Cheikh Sadio di ko tubbi sa barke bi nga tok ndax yaay kilifa yaay yaay yaay jataay bi nee na nga leen ñaanal guddu fan gu and ko bir mbir mu jup aajo ju faju saxada dare ni aajo ju faju nak moy lepp waxtu wo jógee rek lo aajo war dajak mom mi ngi melni ko doon wër ba ngi ko ngeen teul ci mom rek lo aajo faju bokku na ci kon na nga leen ko ñaanal ci barke Cheikh mi ngi sant mbollem wa sécurité bi taxaw bii ba léegi jàpp naa ni tey xew-xew yi xew Tuubaa fan yi gaa yi nga bu jaay si salaam ñooy xoj ak la set dina nga noppi gone yeeg bakkani gone yi kenn du ne fi nit te ginnaaw yàlla yéena kon ba léegi kenn waxatu ko ñu ngi leen sant ñu leen di gërëm nee na mi ngi beral cant daayira bi nga xam ne alale seex Sadia yi muy daayira Cheikh Sadia yi bii nekk tubaa Touba Madiyana Serigne Seck Baye Fall jiite ko na ko Serigne Ndiaga Seck jawriñ mi ngi ci jataay bi ànd ko nee na ñoom ñëpp ñu ngi nii gis nga soxna Fatou Gueye kera appel bi bi ñu ko wax avant premier bi dafa jël kaddu dikki teew ànd ak soxna Nday Mbay moom suñ bàcc dikki teew jël kaddu ànd ak soxna Wéji Njaay soxna Awa Gueye bàyyi ko derrière kër Alaaji Saliou Seck dikki teew fi teewal li njabootu Alaaji Saliou Seck gépp dikki teew fi ànd ak ñoom ci liggéey bi ànd ak soxna Caana Seck nee na ñooñu ñëpp seen pas-pas gis na ko ak seen yéene sëriñ bi nee na la la wóor la seere ci taalibe yooyu ko wane ko gaa yi lijjanti ak ñaari kër ay wujj ñu ngay xeex ñu ngay xuloo sëñ Asan nee na li muy yàgg yàgg Touba defagu ko te ba amoon nga yëg ko mbay nee na ci tollu ko mi ngi sant ak gërëm soppe yi mi ngi leen di ñaana su borom guddal seen fan te wéral seen i cër dem bi ñu xëyee li ci dëkk bis bi am ci solo ëpp ci solo mooy njàngam alxuraan kii nga dendal mooy sëriñu daara bi sëriñ Mbàkke Mohamed Lo di jàmbar jàmbaar a ngi fii jàng na fi ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñett démb jeysun ñett téeméeri kaamil ak fukk ak ñett jàng na ko fi démb def ko addi Cheikh Sadio Mbaye ak waa këram bi noppee def nañ ay xéewal ak i xasida ak i berne dem ba ca barabu Cheikh Sadio fekk fa Cheikh Sadio tëdd ak suñ ma tëyun mbay lu yëkkati ay ñaan ñaan fa yëkkati mu xadimaat ñoo ci kër gi kon na berne yi li fi teew ci kilifa jëlul lim lim nañ ko démb maanaam bi mu woote laa woo ñëpp woote fépp bàyyul kenn woote ñëpp ñëpp wuy si nañu kaw sowoog gànnaar penkoog bawol ñëpp wu si ngir lan Cheikh Sadiaye Mbaye kon ne mi ngi ñaan ci barke Cheikh Sadiaye yàlla su borom guddal seen fan te wéral seen i cër suñu sax nee na seet na guy xelam dal na yaakaaram dolliku na ci soppe yi nee mi ngi leen di xamal ni na seen xel dal moom day fi mu ne ak fi mu jëm ñi mën a fi keme waxal xam na kan la maa nga si bu fees dell la lépp a ngi ci kafe ngi ci suukar a ngi ci tamaate ñebbe ab keccax ndawal ginaar yu ñor ak yu ñorul ak lépp a ngi ci biir noo ko bëgg rek loo tibb rek loo soxla rek waajowoo rek da ko jot mu Cheikh Sadio yi ndax it fa tarakalaaw dëgg la nag kii dënale xam na fa dépasse bi jógee am déet gaañe kii dënale xam na fa la dépasse bi jógee sëñ Mbàkke Seexul Xaddim moo ko ne Sadio yaa may dënalee samay reer kon ndokk bi ngeen fa santeeg sëñ Asan Mbay ëllëgee mel xiyaam futti bu joxe futti bu jafee sàqam bi jafe fa waraasu jafe fa martoog ma ci jafe fa lu sabag lu neex jafe fa yi nga gis yëpp taraka law de ku yàlla dogal màggal Tuubaa nga dem ci màggal yàlla dogal ñuy séddale reer ya amoo ñoom connaissance mën nga am problème parce que bu la neexee dañuy xool mbaxal yaag bi saabuloo bi ak dëxanu gerte ga ak dëxanu salam nga tibbal na cere ba cere ja cere yan ja la jox waaye bu fekkee yow bokk nga ci ñoom te xool la fa tarakalaw day xool la gën lu tibbal jox la ko Cheikh Sadiane doxale noonu la ko suñ Bamba jox day gën la gën ca la ne jox nu koy jariñoo kon bëgg naa ni ñëpp wax ni yàlla na gën ku ni yàlla na gën yàlla nga fekk déwén dégguma leen ne gaay yàlla na gën ku sa baat gën a kawe di nga ñëw déwén de na gën kon sëñ bi kàddu gaa ngi nii bismillahi rahmaani rahim wa rahmatullahi taala wa ñu ngi siyaar ñëpp di santaat ñëpp di dolli di gërëm ñëpp rek di rafetlu baax itam kàddu yi nga xam ni na fi di yëkëti it kaddu ci turu serigne Abdou Samad ci ndigalam di ñaan tam suñu borom may ko mu yàgg fi lool and ak wër diko ñaanal tam sangam ba serigne mohammed mustapha mbay ak mbollem njabootu mam Cheikh sadie gep waye mbollem njabootu mam Modou mbay gi yëpp ñu leen koy ñaanal di wax ni serigne góor a wax yëpp yalla dogal na jaar nga ca kon wax ni alhamdullilah rabbil alamin sëñ Abdou Samad it la bi biig rek la yeesalaat xamal nu ñi su kaddu doy nañu bo démé yëkëtil ta ñaanal mbolo mi di sant bu baax itam mbollem ñi fi jaar ñëpp ci ñi fi yëkëti xassida ñi fi def waxtaan ak ñi fi doon yëkëti turu yalla lepp maase rafet ta yalla ak yëneent jëmmi sëriñ bi rek tax li sunu boroom dig nag ci cant mel na ni ñun def nañ la ñu digal ca nañu ko mane waaye moom la mu ñu dig man na ko te dina ko def yàlla moom moo ni ku sant ma dolli comme yàlla dogal nag sant nañ li ñu am yéene di ko ñaan sunu borom mooy ak ndollent yàlla ñu ko yàlla defal di wax ni tam li sëñ Mbàkke loo wax léegi li mu kaamil yi bi ñu màggalee màggal gi ba mu jàll rek la ko tàmbali def ci yigte ju lool noonu li ci yigte nag mooy xoolal bis yi am ci biir Touba ak bis yi am ci biir Sénégal te lépp di Serigne Touba kon bu defalee li bu toll nii di day ci seex Sadio yi kon xam nañ ni def na ci yigte moom te loolu it mën nañ cee seere ndax mboolem bis yi nga xam ni sëriñ bi def na ko jiwaalo jàng na limub kaamil bu bari lool woo ma wala mu wax sëñ Assane sëñ Assane ni ma sëñ mbacke Lo de jappale na la ci kamil nangami kamil te yaakaar ni sumu jumut lim ba ci gëna a 28 la won te moy ba ci gëna a néew kon ñu ko ci sante bu baax di ñaan suñu borom doli ko waye nak ku kuy liggey alcorane ba ñew ci dëkkub suñ tubaa di ko koku kooku yow daanaka jarul ñaanal dañ lay baye ki tax ngay jëf muy sëriñ bi ndax yalla mo tanal bopam ñoñu alcorane ndax yalla mo ni ñi gën ci yeen moy ki jàng alcorane ba nopi di ko ta kon yalla bu dogale nga jang alquran bu nopi jël ko di def ci ay deñu nit sante yalla ben arafu alquran kep ku jangal nit mu dugg ci deñam payam nit mu taxam num tollu raw ci nang nga jël ab kamil ko def ci ay nit bay and ak ñom di jang yalla yalla fay la jëf jiwu di gëreem bu baax suñu bayyi Omar Thioune mi tam ndax moy fii ñu fi wajuru señ Assane ndax mok bayam ño bok muy kilifam waaw nit ku deggok bayam lol doona ku ko déggal waaye ku ko bëgg lool doona nit ku ko jàppale lool kon ñu ngi koy sant moom itam jotaay bii suñu kilifa la la nga wax suñu waajur yi moom dootuñ ci baamu li am yëpp ñoom la góor lu mu baax baax baax te ka mu àndal di liggéey ci liggéeyu sunu tool toolu suñu borom bi di soxnaam matut la mu doon du fa am dara ñoom nag gàcce ngalaama la leen war def nañ ko boo fi ñu doon ne bu bëri na ci mbooloo mi ñoo xam ne booy ma kon demal tànn ci ñaar ña yaayu asan duñ xam kan la waaw waaw ndax ñoom ñoom dañ di benn waaw fexe ba niñ doone benn ñu def ko ci seenu njaboot ñu doon benn ñu liggéeyal suñu waajur wa liggéey wu rafet buñ mën a seere te xam ci lu bari loolee ñu liggéey yéen itam yàlla bu ump njaboot gi ci barke Cheikh Sadio yi sëñ mustafaa jërëjëf njàng mi ku ne xam ne nit teg nga ko ci yéene ak pas waaye loolu moo la war bam la war a it danga caa ne waaw ndax kuy sa maam nga ni manta foo bokk kër Cheikh Sadio yi loo fa def ci am njàng rek doyut waaye ndokk nag ba nga defee loo xam ne ñëpp xam nañ ni def nga sa yéene sa kem kattan te yéene ji ñëpp xam nañu rafet na yàlla yàlla fay la yiw ci barke Cheikh Sadio yi. fi ñuy daanee rek mooy lii sëñ bi doon wax sëñ bi moom jàpp na it bisam jàpp na ko le 23 juin mooy bu ñu korité ba noppi samedi ga ca njëkk. kàddoom nag mooy ren jii da ko naroon a bàyyi ngir yërmande ci jaam yi ak liggéey bee mu sumb waaye taalibe yi moom ñoo ko xamal ko ni ko seen yéene ci moom moo ñu def bis bi comme yàlla dogal na seen yéene moo ñu def ko moo tax mu jàpp bis bi yéene ñëpp nag la mu xoolit fa ñëpp yéene mu jàpp fa bàyyi ba ginnaaw korité jàngkat yëpp it nag ak waxtaankat yëpp woo nañ ci ñëpp bàyyiwuñ kenn utaluñ kenn ngant ndax ñëpp Cheikh Sadio la ñu liggéeyal Cheikh Sadio yi nga jiwaalo ñëpp la fa woo bawut kenn yëf yi teel na yaakaar trois mois nangam ku ci amoon fooy jàngi teelal yëpp ni samp sëriñ yoonu murit noonu lay doxee samp sëriñ kat moo soxla bu soxlaa bis bii tuxalal ma ko bis sàngam ñëpp xam nañ ko yoon wi noonu lay doxee bàyyiwuñ kenn ñëpp lañ fa woo kenn ku ne lay sa pas-pas ñëwal takk si liggéey def ko incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla lañ ci yéene it mooy liggéeyal Cheikh Sadio rek ndax mom sak wut lulul dul Cheikh sadiay beugulit lulul ñun ñu am ngërëmal Cheikh sadiay tay ñort nañ ni dinañ ko am insha rabbi sant nañ ñep gërëm nañ ñep ndax lañ waron wax yëpp wax nga ko fi kaddal moy ñaan nga dañ ko jox sëñ Assane dañ lay ko jox ndigal la ndigal la ndax daf ma wër ni dama lay am fu ma la tënk tuuti rek dama wax ni ñun ki fi nekkal sëñ Touba di sëñ Mountakha day sunu sëriñ ndax sëñ maam Cheikh a ngi nii tey sunu kilifa waye tuduma ko ndax day sunu mak li tax ma jëw ci sëñ Assane la ñaanal da nga liggéey su maam liggéey bu rafet ñepp and ci ak yow sakku ci ngeureumal Cheikh Sadio yi mu wóor ñi sa xol laaf na tey wóor ñi sa maam def na ci yow dara tayit sikki wuñ mukk sakka ci ni bo yone mbolo mi faj aaju rek def ko sëñ Mountakha mi ñi yaakar tay ak fu mu sa dajek dajeeg Abdou Hakim yalla yalla yàlla dolli ngërëm ak leeram da koy jox ni ko ñaanalal mbooloo mi mhm. wér na ma ñu la wax suñu borom def ko ñoom dafa ñu yeggoon jotewuñ ko waaye sañ nañoo barkeloo seen wu doxin te amuñ ci sik sàkka Dama bëgg nga nga ñaanal mbooloo mi fasal leen ñu fekk déwén faju aaju biir ak biti te wér na ma ni boo ko ñaanee rek suñu borom may ñu ko sikki wuñ ci sàkk kon ñaanal ko mbooloom yëpp jox nañ ci ndigal ginnaaw lii ndigal la faaw mu jëm koo jëfee waaye li ma tax lépp sëriñ wax na ba noppi amul mi wax moom nee mu dara lu wax bopp ba ñëw naan dañuy wax na dañu waxoon ne bi ñuy takk baas bi. nee la mu bi ñuy takk baas bi démb wala bëgg démb. danoo ni képp koo xamee si ne laal na ci bis bii. danoo wax ne képp ko xam ne laal nga ci bis bi ak noo ci laalee. doo yem ci laalul de. doo ku ci laalul de. loolu moom ñun xam nañ bi ne loolu moom xam na ko tabarka Seex Saay ci la ko jëlee. nee na bis bii bëgg na bi ñuy takk baas bi dañ ne ku ci laal. doo yem ak ku ci laalul waaw. xamaa na ku ci laal di xool ban tëgg baax bi yaa xam. li tax ñuy ñaan nag mooy ndigal gi mu wax. ne li tax muy ñaan dina ñaan ndax suñ bee ko jox ndigal waaye kon du ñaan. ndax lii nii ñun. ndax lii moom. ko bàyyee xel depuis ba mu koy def ba léegi. nee ba mu ko tàmbalee ba léegi. ren la ci juróomi at. la ci kenn mës a dégg suñu a dégg kàddu mu yëkkati ko. ndax loolu yitteelu ko. jóg yitteelu ko. lanu tax a tax a jóg. mooy ndigal gi ñu jox ñu koy dox di ko wéyal. loolu rek lañ ci ci soxla. kon du lu wax. du lu ñuy wax. de. jëf ga rek lañ jëf rek soxla. wax dëgg yàlla waaye gannaaw Baye Cheikh wax na ne la mu sant ne moom lu métti métti daal ko def na ko def kon nag tàllal loxo yi bu noppé nag ku ci lolou laal ci tekki len baasi dajale seeseen mat ta bu mu yàqu bu len damu foto yi bu len damu fess nangu len ñaan amin fadlan wala bëgg na ko baax li yasuqul kon nak mbokk yi li moy li ngeen jëlale wul fi tay ci kër sëriñ Assane Mbaye moy cant gi nga xam dina ko amal ak mu jot bi nak di juromel yoon bi mu don ko amal fi ci Touba and ko nak ak xarit yi ak mbokk yi ak wulare yi ak am di jàmm yëpp mbollem li nga xam nak def nañ ko fi biñ xëyee suba ko ci ngon ba xeyat suba sëriñ bi doora genn ñaanal mbolo mi ñaanal ñi fi teewoon ñun ñëpp ñu delluwaat ca yittee muy cant gi xam ne daal sëriñ asan at mu jot dina ko amal fi ci le 22 mars bi diko amal sa suné di ci fàttaliwaat mbok talibé yi ñu takku fas fasiyene waajal li nga xam ne moy mooy déwén incha allah kon nak mbok yi xarit yi am na jàmm yi fi lañ leen di taggo leen wax ba déwén ak jàmm ki àndoon ak yéen ci caméra bi di seen mbokk Moustapha Niass Toubabelél point net ki àndoon ak yéen ci micro bi muy Serigne Gora Ndiaye naanaan borom jant bi FM kon nag mbokk yi tey ñu ngi tàggoo wa rahmatulahi